seetaan ci Seneb TV seneb.com dal leen ak jàmm waxtaan bu yaatu bu ñu fas yéene sikk ak nga xam ne moo di monsieur Tahirou Sarr euh, mu nekk également benn acteur politique en même temps aussi nekk coordonnateur mouvement bi nga xam ne moo di sénégalais euh, maanaam mouvement national des sénégalais. mouvement euh, nationaliste. mouvement nationaliste sénégalais. wàllum jëf jël bokk ci également aussi. jëf jël ko bon. ba ne mouvement national sénégalais. bi ma ko jiite jël li ñu mooy mouvement bi nga xamante ni moom nga jiite mu nekk benn mouvement boo xam ne ça regroupe pas mal de jeunes yi nga xam ne jot nañ cee bokk mais eh, ci benn côté également benn coalition politique bi nga xam ne jotoon nga ci liggéey avec Idrissa Seck cette fois ci ñu gis la ci beneen mouvement boo xam ne bu bees la boo teg fas yéene ci élection présidentielle ñu am mbégte fas la dalal ci Seneweb TV pour waxtaan ci lu yaatu lool ñëwal sa programme. di am mbégte aussi di si dalal bi rafetlu tamit liggéey ma fekk rafetlu su état doon jàppale ñi fi am ñëpp defe naa immigration clandestine bi dina gën a wàññeeku incha allah non parce que j'ai vu une équipe jeune et ouais. je félicite Salam de ce voilà de mm-hmm. donc di ñaan yàlla màggal kër gi bu baax parce que Sénégal moom je suis man je suis euh, comment dirais-je je suis parmi les euh, je ne dis pas les herbes de Sénégal mais ba Sénégal di doon voilà bañ ah, koy gérer ci biir benn nekk. yàgg na waaw ah, man j'étais j'étais présent donc Salam mën na témoigner loolu ko et depuis 2020 aussi gis naa entretien boo xam ne yàgg na lool depuis des années à chaque fois yaa ngi renouveler. oui c'est témoignage c'est ça donc euh, Seneb dafa jouer lu bëri ci Sénégal ah dafa jouer lu bëri ci espace digital du Sénégal. Mm-hmm. donc il faut ñu rendre hommage loolu ko je pense que moom ak leeral bu Dame Dieng aussi. Mm-hmm. Euh, ñoom ñaar ñoo njëkk taxawal mbir yi. te muy bu Dame Dieng muy b leeral tamit bu muy bii aussi dama ci dama ci bokk dama ci mu wàll. effectivement donc maa leen rendre hommage muy Dame Dieng muy Salam di ñaan yàlla yokk seen taxawaay. voilà donc mën nañ jàpp ne kër gi sa kër la ci nga bokk. waaw ci la bokk bon façon defe naa Sénégal <laughs> mooy Sénégal donc <laughs> kon mi ngi noonu quoi. <laughs> voilà donc euh, monsieur Sarr bi comme ni nga ko ni nga waxee ah wàllum actualité la presque nekk loo xam ne dab na Sénégalais yi ñu bëree bëri mais y' a beaucoup de questions qui se posent là-dessus à cause des contradictions yi ci am. il y a certaines ONG yi nga xam ne ñu ngi joxe des informations euh, Horizon sans frontières. yi nga xamante ni jot nañ cee wax ñu gis ñu ne ñu on parle de 300 morts l'état du Sénégal avec le communiqué de ministère des affaires étrangères démentir li ni mel mais ba léegi tegagul suñu loxo loo xam ne tamit lu dëgër la comment nan la ñu mën a yegsee ci contradiction bu mel noonu tamit ci jiyee boo xamante ni am na doole ba yegg ci lool mu jëm ci wàllu migration. bon état du Sénégal xam nga dafa euh, dafay lekk xaalis ci politique euh, d'immigration maanaam afin ñu interdire immigration ñu xeex immigration clandestine. Mhm. état Sénégal da ciy lekk xaalis. Mhm. parce que euh, tubaab yi dañuy jël yenn xaalis yi jox ko état Sénégal pour ñu mën a créer des emplois pour ñu mën a maanaam fexe ba xale yi mën a pas décourager ci immigration clandestine. Mhm. mais mën a am lu jàpp ci askan bi. te loolu feeñul ci askan bi. donc ça veut dire quoi ça veut dire que ñoom seen politique de démenti maanaam mën na féete mën naa ko comprendre ci loolu. parce que aussi comme li ma tam di wax en fait euh, dans tous les pays muy état day dundee fen à 70 pour cent wax ji mooy pays sérieux yi. Ah. su fen bi demee ba law maanaam ba ñu am ne prouvé na lii ab fen la. Mhm. dañuy sanctionné. dina am directeur bu wàcc dina am ministre bu wàcc dina dina sax dem ba ëpp loolu mais fii Sénégal dañuy persister maanaam ci loo xam du dëgg. tandis que la vérité maanaam est visible ko donc ça veut que su yenn organismes yi waxee yenn chiffres yi. Mhm. ñoom ison des rapports directs yoo xam ne état Sénégal du ma ne amuñu ko am nañ ko mais dañu am benn jeu de démenti bu ñuy def pour maanaam gën a amoindrir euh, gàcce bi parce que chaque fois que immigration am en fait ay bateau coulé ay bateau daanu ay nit dee ci mais loolu gàcce état Sénégal la parce que li ñuy gëmloo ci leb li ñuy gëmloo ci maanaam création d'emploi amul te chaque fois day feeñ ci géej bi d'accord donc voilà maintenant nag nouvellement mi ngi feeñ aussi ci manifestation yi. mais est mën nañ dem di yegg ci ay faits yoo xamante ni parfois yu taxam la doon est-ce qu'il n'est pas mieux d'habitude d'endosser des responsabilités essayer de faire revenir à la responsabilité mais tamit mën a tenir benn aspect boo xam ne nit ñi dañ am compréhension que ni l'État a failli ci benn sens mais au moins ñu ngi def effort pour se rattraper dans l'autre sens. bon je ne dis pas que l'État se rattrape ci xam nga dëkk bi lu fi am dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo. Mm-hmm. man dama yàgg wax benn affaire sur le sujet de l'immigration clandestine gis nga kër bàyyi ah, waaw su fa doom xajatul dañuy uti feneen sénégalais yi dañoo xajatul sénégal sénégalais yi amatuñu espace sénégal sénégalais yi amuñu aise xam nga est-ce que dégg nga expliqué c'est-à-dire que dañu nekk ci dëkk boo xamante ne ay étrangers dañu fay ñëw au nom de la CEDEAO au nom de l'ouverture au nom de la mondialisation jël suñu liggéeyu doomu dëkk gën fa féex ñi fa dëkk. Sénégal ñàkkul liggéey et man loolu je le dis xam nga je suis un opposant donc sa veut dire que mënoon naa ne Sénégal amul liggéey comme pour être nihiliste mais Sénégal am na liggéey mais wax ji mooy liggéey bi ñan ñoo ko occupé est-ce que doomu sénégalais yi ñoo ëpp ci liggéey bi c'est ça la vérité c'est ça les questions qu'il faut se poser man j'ai fait le terrain def naa ay constat mhm. am naa ay rapports yoo xam ne man maa ko defal sama bopp mais je sais que liggéey yi am Sénégal li ci ëpp doomu étranger yi ñoo ko jël au nom de quoi au nom de que muy sénégalais bi nga xam dafa investir au but société am il préfère prendre des étrangers parce que fi mu waroon fay cent mille wala cent dix mille mën na fa fay benn guinéen wala benn guinaa wala benn gisaaw binéen wala beneen libérien à cinquante mille kooku nangu ko. d'accord c'est la vérité te loolu dafay répercuter ba suñu doom yi parce que loolu day créer fronts sociaux état. priorité am lu njëkk mooy maanaam xale yi nga xam ne de bas nan lañ mën a nekkee en formation pour maanaam dans trois ans quatre ans ñu am métier. parce que xale dee lay sànq moom six ans dix sept ans nga gëmloo ko formation kooku da koy teel dugal ci liggéey. parce que au bout trois ans suy dugg ci vingt ans day commencé nekk salarié. mais est tamit duñu duñu dem ci benn côté que ne il y a une responsabilité qui appartient à ces jeunes là yi nga xam ne yu xaw a yu xaw a suuf yi du ñu nangu parfois. jeunes yi amuñu benn responsabilité si kii bi jeunes yi au contraire ñoom ñooy victimes yi je m'explique bien. mooy li ma la expliqué cest su investisseur ñëwee. Mm. que sa soit un investisseur national wala un investisseur international. yow miy joxe licence yow miy joxe permis mu ubbi lu mu war a ubbi yow état da nga am responsabilité xool kii est-ce que li muy ubbi déjà maanaam méngoo na ak maanaam normes yi. norme yi maanaam déjà lan mooy capital am benn ñaata employé soxla lan mooy quota bi nga xam ne day jël maanaam samay doomu dëkk même bu fekkee dafa am fulla ne la oui j'ai am soxla naa fanweeri xale mais kii danga koy ne carrément fanweeri de jàppal ne maanaam ñaar fukk ak juróom yi mooy vingt cinq yi sama doomu dëkk la ñu doon par su ko neexul nga bàyyi ko mu mu mu mu mu bañ a ubbi c'est pas compliqué mais Sénégal la ngay gis indien bi day ñëw ubbi boutique demal hypermarché exclusive soo fa demee ay guinéen kese fa nekk au de quoi te pourtant au début ay sénégalais ñoo fa doon liggéey ñu leen di fay quatre vingt dix mille ba cent dix mille. dañuy bàyyi ba sénégalais bi dem congé ñu dàq ko. jël keneen man am naa ay preuve mën naa woon ay message sama téléphone. parce que dama taal sama oto dem gaare dugg waxtaan ak ñi fa nekk waxtaan ak le minimum de sénégalais mës naa fa dem benn période j'ai vu trois sénégalais kenn ki mooy gardien bi nga xam ne mooy porte d'entrée bi. yeneen deux yi ñooy gérer parking bi. soo a que des guinéens et des indiens léegi ana boobu ana intérêt Sénégal dugg nañ ko mais soo ko waxee ñu ne da nga raciste wala man je j'assume mon racisme man bu dee jiite sama doomu dëkk ci Sénégal hmm. je l'assume d'accord maintenant hmm. si doomu sénégal yi tamit am doole ubbi bërëbu liggéeykaay man tam ñoom laay waxal parce que c'est pas juste les étrangers y a des gens qui ont des moyens dafa am ay sénégalais yoo xam dañuy ubbi bërëbu liggéeykaay toog jël ay doomu yeneen dëkk parce que bëgguñu fay lu ñu war a fay mais loolu yëpp c'est l'état qui responsable parce que état bi su doon obligé ñi nga xam ne ñoo am moyen ubbi ay bërëb liggéeykaay ba war a jël ay xale mhm. état am na doole boo xam ne maanaam non seulement mën na leen obligé ñi jël doomu xale yi en priorité mais tam mën na sax lekk si ñoom xaalis d'accord ñun mouvement national loolu la ñuy xeex dañu ne ñun bis bu ñu yàlla joxee réew mi képp ku fi jël koo xam ne maanaam du sénégalais ci benn ratio mhm. ah dañuy tëj sa entreprise jël ko nationaliser ko jox ko loo xam ne jox ko benn Sénégal bu ko mën a diriger d'accord étranger de fii ñëw da xool par soo demee ay Saly ay Petite Côte bi mais tubaab bi man mës naa dem parce que damay réseau ay partenaire ànd naag sama yenn partenaire tubaab mhm. ñu dem du ma tudd du ma restaurant bi quoi mais ñu waxtaan ak borom restaurant bi ma demoon xam nga lan la la leen tubaab bi wax mhm. dafa ne ici chaque tête c'est chaque tête c' est cent euros maanaam bopp bu nekk soixante cinq mille la ça veut dire quoi ça veut dire que maanaam sur mille euros mhm. mën nga am di employés d' accord est-ce que may dégg mhm. te loolu du yoon léegi da nga bëgg nag loolu léegi xale yi ñoom ñu toog maanaam ne du ñu naan attaaya dañu duñu du ñu am jot su gars yi woote ci mbel bi du ñu leen wuy si no c' est pas comme ça état dafa am obligation ak impératif jiital doomu réew mi loolu t'as pas besoin même de faire de d'incarner le nationalisme d'accord pour man képp ku toog ci sa dëkk. Mhm. parce que Sénégal sénégalais yi ñoo ko moom. sénégalais yi amul keneen Sénégal amul keneen ku ko moom ku dul sénégalais yi. donc nañu bàyyi dañu gëmloo ne ay wii nitu àll yi nitu euh, campagne yi dañu war a béy dañu war a kii non non non Sénégal ñëpp ko moom su Dakar amee jàmm ba nekk capitale du Sénégal instant bi nii c'est parce que maanaam sénégalais yi seen juróom-ñaari maam ñoo ko xeex ñoo tur deret ñoo tur ñàkk te loolu il faut leer ci bopp ñi ñuy diriger d'accord ci benn côté na aussi benn ay raisons yoo ne jot nañu ko évoquer parce qu'on parle ne instabilité bi ñu jàppoon ne réewum Sénégal ci la doon jëm ak yëngu-yëngu yi fi jotoon a am bokk na ci lu gën a motiver la majeure partie de ces jeunes là que ne non dañuy quitter Sénégal mais côté boobu suñu ko waxee responsabilité yi faaw ñu diversifier ko. loolu utopie la rek loolu xalaat la gis nga dëkk lu mu tàng tàng tàng doomu dëkk bi dañu fiy toog man j'ai les moyens de voyager mais maa ngi fi toog fii ñu fi bëri ils ont les moyens de voyager tu bon certaines autorités su bi tàngee mën nañ dem Maroc mën nañ dem Paris wala dem feneen loolu ñoom la parce que ñoom ñoo xam lu ñuy daw mais xale yi seen xel mën a ñàkk dal ci seen ëllëg. xale yi seen xel lenn kese la mooy dañoo xat Sénégal Sénégal instant bi xam nga ñu ngi defar yaa ngi yaa ngi gis ñu ngi defar mbedd yi. après qu'est-ce qui va se passer ay étrangers jël trottoir yi teg ci ay table di jaay caaf di jaay fruit pour lan yow Sénégal bi mënoo sax am droit de circuler normalement da ngay gis Sénégal boo xam ne day dox ci tali oto di ko klaxonné muy mën a mu mën a yéeg wàccaat ci tali bi di dox pourquoi parce que ay étrangers ñoo ñëw jël occuper trottoir mais loolu c'est loolu du dëkk dëkk bi dañ ko war a réguler dañu war a def benn réforme migratoire mhm. étranger yi baax nañ ci dëkk bi étranger am nañ solo ci dëkk bi mais étranger dafa war a am njëriñ ci dëkk bi en quoi faisant dinañ bindu dinañ am carte de séjour dinañ fay titre de séjour dinañ fay ay taxes incha allah. te lépp lu war. Mhm. pour dëkk bi normé. Mhm. maanaam muy mbedd bi yaatu gën a yaatu ñu xool maanaam ñi war a jaay am droit jaay ñan ak ñan la ak ñu ko mënul yellool. d'accord te loolu yoon. mais Sénégal bu ñu ko waxee en tant que opposant d'habitude dañuy yem sur des faits mais bañu dugg sur des propositions mais vous euh, comme éventuel président de la République ëllëg ci biir am nay propositions yoo xam ne dafa war di tegu ci loo xam ne lu stratégique lay doon Sénégalais mën ci bénéficier wu. y a Boubacar sans frontières qui nous parle de 1700 euh, ci trimestre bi lan nga jàpp réellement que ni par rapport ak jéey yooyu lu ñu war a mën a installer la pour que a génn ci drame yi ni mel. mooy li ma la wax rek sénégalais yi dañoo xat ci biir Sénégal sénégalais yi dañoo sentirul seen force ak seen droit ak seen privilège si seen biir dëkk ñun ñii nekk sénégal ñun ñi nekkoon bitim réew ñun bitim réew lañ ñu gën a respecté sax que suñu propre dëkk. Hmm. fii Sénégal dangay ngay toog joteeg étranger fii nii du mujj fenn. c'est la vérité man dund naa ko personnellement am na ñu ko dund ñoo xam ne personnellement te loolu du yoon. dëkk soo si nekkee dëkk bi la meññ dëkk bi la jur da nga war a xam ne fii yaa fi priorité. mais fii c'est pas c'est pas le cas soo demee ci dëkk tubaab bi am nañu fulla boo xam ne c'est vrai dañ lay xool xam ne yow yaa ngi dox xam nañ ne am nga tiide am nga njëriñ économique ci dëkk bi d'accord donc voilà loolu kese la mais mënoo toog bëgg tere xale yi jël gaal bi bëgg tere xale yi maanaam ñàkk pexe ba ba ba mën a jël ay risque pour dee wala pour tekki tuddee ko Barça wala Barsak mhm. nga bëgg gëmloo ñu chaque fois ci ay discours leb nañu temps créé nañu temps et tout parce yëpp maanaam mooy amoo politique de développement parce que li ñu fàggagal ci employabilité yëpp maanaam ñàkk politique de moteur de développement moo ko waral. soo gisee ay agence ay DER ay ANAPEJ ay je sais pas quoi. Mhm. c' est des yoo xam ne dañ koy créer ay direction président da koy ñëw créer président bi day daanu agence yi daanu parce que pourquoi parce que c' est juste des projet ay projets la yoo xam maanaam c' est des projets en hauteur mais c' rien du tout. amul dara loo xam da koy consolider ci suuf. parce que moteur développement mooy loo xamante ne dëkk bi mën nay tàkk dëkk bi mën nay nekk ci bekkoor mais day continuer. maanaam di génne di nal dëkk bi di génne di produire xaalis mais loolu amuñ ko Sénégal. te du ci pàcc bépp Sénégal amoo sax maanaam politique industrielle sa ministre de de l' industrie mënta wax dafa muuma donc ça veut dire quoi non il faut être sérieux xam nga wax ji ça peut être mais ni TER hmm. na parce que modernité dëkk day dox. mais daa am lu ko jiitu. lu ko jiitu mooy maanaam ligne ferroviaire bi fi tubaab bi bàyyi. te maanaam mu tracé yëpp. Hmm. bay relier dëkk yi nga xam c' est dëkk religieuses yoo xam maanaam ni Touba ak Tivaouane mais maanaam nga defaraat mu yem. ba nga xam ne maanaam àll yu muy romb sax gars yi de plus en plus nga gis ay investisseurs yoo xam ne dañuy ñëw maanaam créer ay zone industrielle ci yenn partie àll yi mm. après day mujj sax nekk dëkkuwaay nekk ay zone commerciale mais amoo ko yow tu yow da nga jël benn téyeer maanaam matul sax 70 kilomètres jeex na après foofu yam fa la yam voilà nañ dugg un peu dans l' aspect politique mënuñu ko ñàkk évoqué euh, mooy ce qui se passe actuellement dans l pays depuis quelque temps actualité bu ñuy waxtaanee le président de la république décide Euh, pour jusque laa ne du bokk ci élection présidentielle 2024 ni ki démb mu doon dalal ay nit yu bokkee ci Benno Bokk Yaakaar mais turu Ousmane Sonko xam nga mënul bañ a ñàkk bokk ci mbir mi mais les cartes blanches moom la jot pour choisir le candidat de Benno Bokk Yaakaar yow personnellement ndax jàpp nga ne loolu erreur la wala une confiance boo xamante ni liggéey na ko déjà dans Benno Bokk Yaakaar. non Macky jotul carte blanche la preuve bis bu tànnee ku mu war a tànn Benno Bokk Yaakaar dina parce que xam nga dañu wax ne dëgg quoi Macky Sall mënul nekk ci dëkk bi. Mhm. war a tànn ci opposition bi ñuy bokk war a tànn ci camp ñuy bokk loolu mënul nekk te man loolu sax merew ma ci Macky Sall. mais je fais appel non baa ma expliquer je fais appel à la dignité de ceux que je vais muy Aly Ngouille Ndiaye. muy Amadou Ba muy Mactar Cissé muy Abdoulaye Daouda Diallo muy euh, nu mu tuddati euh, Mame Boye Diao c'est-à-dire seen dignité fan la nekk ba Macky Sall war a mën a tànn. c'est ça la vérité. pourquoi mu war a mën a tànn mais mais wax tamit monsieur Sarr moom moo jiite exactement ci biir coalition bi actuellement mooy président sortant kon war na mën a nekk en tant que ku jiite am expérience présidence mu xool kan la war a mën a tànn koo xam ne mën na. Macky Sall détenirul le destin des uns et des autres dans ce pays là yàlla certes may na ko loolu maanaam en temps limité mais maanaam Macky Sall amul droit loolu parce que mbiru président askan ñooy tànn d'accord naa am nañ benn clan boo xam bëgg nañ ko sauver. léegi nañu woote primaire et tout mais pourquoi Macky Sall moo war a tànn et puis cette carte blanche là on va voir na ba pare ñu xool fan la jëm incha allah dina tànn ba pare ah xanaa leen am. xëy na ñenn ñi da leen nar a jàpp ci ay mbir yoo xam ne peut-être ñoom xamal nañ seen biir boobu du ñu bouger. parce que aussi non mais non et ça se comprend dans la mesure où. Mm. liste bu mu war a tànn ñëpp c'est des gens c'est des c'est des autorités super riches nit yu am alal lañu. nan la ñu amee alal su leen Macky fal woon am alal. nan la ñu amee su leen Macky maanaam maanaam corps de contrôle yi presque jàpp na si ku nekk maanaam su i bàyyi woon corps de contrôle doxal yoon maanaam ba teg daan am ci. du ñu egg fi ba mu war leen tànn. kon peut-être que xëy na avec ça dinañ mën a plier wu. d'accord mais man li ma xam ba xam mooy que Macky de façon général laa wax de maanaam su ma nee général maanaam tout le Sénégal et tous ceux qui veulent être président dans ce pays là amul droit de choix si ñoom. lu tax loolu. parce que Macky Sall ba mu ba ba muy nekk président sénégalais ñoo ko tànn ko. waaw kon sénégalais ñoo a tànn keneen teg ko amu ci droit. muy man muy Sonko muy keneen mais coalition mais coalition ci jëm coalition bi nga xam ne moom moo ko jiite. xam nga loolu day indi ce que j'appelle maanaam le côté de de maanaam le côté courtisan du système xam nga nit. waaw da nga war a mel benn indépendance intellectuelle ak indépendance d'agissement. Mhm. waroo toog ñu lay tànn. est amee dégg mais question de confiance aussi non non non non mais lan mooy confiance confiance mooy damay ut koo xam dama ko fiy teg pour su ma demee du topp kenn ci sama sama famille wala sama mbokk sa mouvement lan moo tax yow ñuy jël la jiital la ci kanam sama mouvement xam la ma tax ñuy jël ma ci kanam hmm. parce man maa am sama idéologie am sama vision am sama programme ma proposé ko ay nit ñii c'est des anciens camarades de classe ñii c'est des amis d'enfance ñii maanaam ay nit la yoo xamante ne dañoo dox ba ci biir politique boole ñu. ñu dégg ma may wax ci télé bi ñu commencé di adhérer. c'est comme ça mais. taxul mais en référence même mouvement Benno Bokk Yaakaar. c'est différent c'est totalement différent c'est carrément différent parce que du benn Macky Sall dafa jeexal. dafa jeexal oui Macky Sall c'est un président qui a fini les deux mandats qu'il avait demandé au Sénégalais. voilà maintenant nag dafa war a bàyyi la responsabilité de sa coalition loolu mën naa ko permettre ñoom ñu xool seen biir ñu ay primaire ñu choisir ki ko noonu mais moom dafa bëgg imposer benn candidat amul problème na ko imposer même si que man gëm naa ne Macky Sall su fekkee dafa nekk maanaam ci logique u sax tànn candidat man xam naa ne bëggul tànn candidat Macky préparé wul candidat Macky bëggul candidat benn budul boppam te loolu nañ ci waxaat incha allah. déet waay non mais ku noonu est-ce que dina dem ba ne du bokk ci présidentielle 2024. Macky ñaata la wax dellu ci ginnaaw. kon da kon danga nga am. maanaam Macky waxu fi woon ne Macky waxu fi woon ne day falu def cinq du def sept ans fan lañ mujjee. mais waxoon na fi ne du romb ñaari yoon ci Sénégal te loolu confirmé na ko. nan la confirmé. wax na ne du bokk 2024. waaw loolu wax la pour le moment mais c'est pas encore acté ah wax la. kon da nga am doute ci que ne mën na dellu delluwaat en su ma rafet njot ci Macky Sall. loolu foo koy teg. yaa ko topp yaa gis wax ay wax yoo xam ne respecté wu ko yaa gis ay wax yoo xam ne dafa waroo at maanaam jëfi mais man mosuma rafet njort ci Macky Sall sama kilifa la nag wax dëgg yàlla ku ko jox kilifteef bu bu ko yàlla jox laa ku ko respecté laa hmm. mais man rafetuma njort ci Macky Sall alors euh, ci question boobu noonu tamit ñu teg waxtaan te noonu la ñaawee njort ci Ousmane Sonko tamit moom moom si jëm boppam waaw parce que dafa ragal Ousmane Sonko falu pour maanaam créer ko Ousmane Sonko xalaatul nekkul ci dimension boobu noonu maanaam dama bëgg expliquer rek moom lu mu wax ne <laughs> mooy loolu dama lay expliquer rek boobu boobu xam naa dinañ ci dellu si waat mais par rapport ak biir coalition boobu noonu on en parle y a des gens qui citent des noms yow déjà sax def nga un ay référence ci ay euh, ay Aly Ngouille Ndiaye ay Abdoulaye Daouda Diallo ay euh, Amadou Ba yaa a des gens qui citent des mais ñu bare bari ñu ngi naan profil bi kan la war a mën a nekk mais bu fekkee pour l'instant ñenn ñi ci tur yi faral di dégg bi ci jiitu daanaka Amadou Ba da ci bokk am na beneen bu dellu si mooy Boun Abdallah Dionne. kan nga yaakaar entre ku mu ku mu gën yaakaar ne daal day plié wu xam naa la nara a tànn wax ji mooy. waaw euh, supposons Macky Sall tànn benn candidat supposon Macky Sall respecté kàddoom comme quoi que effectivement demul supposons mu teg benn candidat supposons candidat boobu ñëw ba gagné. même si que faraluma ko nekk président beneen affaire la. ala kulli aali ku mënti teg ku mënti choisir. su ko yàlla defee président da koy war parce que li mu ciy xaar du ko fekk. day war day war président Macky Sall. oui parce que boobu tout ce qui est force de l' état kooku ordre la ñuy topp du du ordre Macky Sall ah. Macky Sall dès l'instant qu'il va euh, pas euh, faire la passation de service il n' plus un président du Sénégal ah amul benn ordre bu muy joxe. non li ma jaaxal mooy la moo tax nga xaw a ñaaw njortu ci ci ci futur am quoi. ci li muy décider waay. non parce que Macky Sall fi mu toll nii ci ci ci ci njiit il faut nga juger le passé de Macky Sall en tant que président depuis 2012 il a fait beaucoup beaucoup beaucoup de fautes. beaucoup de fois da xool instant bi nii il a un problème de choisir un candidat de Benno même si que xam naa ne bëgg ko sax daal le fond. est-ce que nekkul ne waxtu bee ñëwagul. non no non non non parce qu'il n'a il ne l'a jamais voulu Macky dafa yàgg bëgg la seule constante si biir euh, benn bokk yaakaar da ngay xool élection locale yi xam nga suñu waxantee dëgg te yàlla tax. Mhm. man je pas pour Amadou Ba mais Amadou Ba moo ëppoon doole pour gën a am chance nekk maire de Dakar que Abdoulaye Diouf Sarr quand même que je sais que naru woon mën a nekk maire de Dakar mais au minimum waroon na mën a nekk maire de parcelle mu am fief boo xam ne c'est un fief confirmé mhm. mais Macky Sall a tout fait pour que loolu amul. pourquoi parce que da confirmer guerre bi ñuy wax entre lui il joue le surnom avec Macky Sall il se plie il a des ambitions pas cachées quoi mais des ambitions yoo xam ne voilà c'est des ambitions <laughs> enveloppées si benn autorité boo xam ne mu ngi tudd Macky Sall d'accord mais Macky xam na ne que Amadou Ba da ko bëgg utu Amadou tamit maanaam amagul fit bi pour affronter Macky Sall parce que Macky Sall nekkagul en position de faiblesse totalement devant Amadou Ba dire Amadou heure bi nii bëgg-bëggam ñëpp xam nañ ko parce que Amadou Ba loo ko bañ bañ bañ. Mhm. il a un profil présidentiable naturel loolu day am ci nit. c' est comme c' est un peu comme Khalifa Sall en deux mille dix neuf. deux mille dix neuf waaye mais il ne s' pas affirmé. Amadou Ba tam instant bi nii il tarde à s' parce que politique c' politique question de moment opportun la daa foo xam da nga fay toll. maanaam. Mhm. affaire yi leer sa kaw. waaw léegi nag yaay am fulla wu affirmé wu. est que bu ko defee du yàqal boppam tamit. nan la yàqale boppam. par rapport ak confiance bi euh, président Macky Sall di am ci moom mën na ko dimbali nombre d'électorat. li mu liggéey Sénégal mu utiliser bilan am xam nga tu ma tu ma diras que Amadou Ba su Amadou Ba nekkee un homme super riche di maye ay nag chaque tam xarit wala di maye ay xaru tabaski et parce que Macky Sall moo ko fal je suis d'accord sur ce plan là mais en de ça Amadou Ba Macky ñaari mbindeefu yàlla lañ ah. ku nekk am na droit maanaam am bëgg-bëggam. mais soutien bi tam lu ci am solo la. soutien ban bu Macky Sall. taxawaay waaw. leen de xam naa ko de euh, su Macky choisir choisiré keneen ku dul Amadou Ba ci benn bokk yaakaar alors là la coalition moom day gën a exploser. te bu choisir Amadou Ba n'empêche coalition bi dina. non dina am petite fissure en fait parce que Amadou Ba am naa benn lecture ci seen coalition bi que Amadou Ba euh, comme je te dafa am benn profil présidentiable naturel. waaw Amadou Ba c'est comme ni ma la ko expliqué quoi comme Khalifa Sall en 2000 truc. Mhm. maintenant bon léegi nag su ko fii rombé nag après c'est fini mais quand même il faut juste expliquer une chose sénégalais yi amuñu intérêt fal Amadou Ba président. waaw sénégalais yi amuñu intérêt falaat Macky Sall président sénégalais yi amuñu fal amuñu intérêt fal Idriss Seck président sénégalais yi amuñu intérêt fal Karim président sénégalais yi amuñu intérêt fal Malick Gakou président parce que dañuy incarner le système te ñun suñu xeex lenn kese la mooy mm. maanaam dégager ci système la d'accord système bi daf fi war a jóge parce que système bi moom moo nësaxal Sénégal système bi moo tax ba en 2023 malgré lu milliard tubaab bi di joxe lépp pour lutter contre l'immigration clandestine. Mm-hmm. ba léegi xale yi ñu ngi dee ci géej gi. d'accord ci point boobu nga waxee. président de la république dafa war a recevoir bientôt wala tey sax mën na nekk euh, les députés de benn Bokk Yaakaar au palais présidentiel pour discuter avec ci question bi nga xamante ni daanaka mooy les conclusions du dialogue loolu la ñu wax euh, parce que bu ñu ko waxee faw ñu évoquer également article L29 L30 bi nga xam ne éventuellement mën na amee di une modification dan jàpp concrètement que ne le président de la république mën na ko jox pour ñoom que ñu mën ko respecter comme ordre une fois euh, bu ñu indi yenn pro yenn projet de loi assemblée nationale mën a nekk loo xam ne dañu ñu concrétiser la ci lan lay wékku n'empêche dañ évoquer waale le cas des deux cas également aussi. non man euh, modification bon xam nga man je suis pas responsable de ce dialogue là pour euh, pour dire honnêtement parce que man je suis de ceux qui ont boycotté le dialogue. parce que dama xam ne dialogue bi maanaam c'est un sauvetage du système. mais aussi tamit un piège pour euh, avoir des complices de l'opposition ci lii bëgg isoler ak maanaam comploter contre Ousmane Sonko donc je l'ai toujours dénoncé et j'ai toujours marqué ma solidarité en faveur de Ousmane Sonko ci loolu. maintenant pour les lois que yu war man li ma ëppal solo j'attends de voir en fait ñu xool cette volonté manifeste de Macky Sall à vouloir amnistier pas Karim Wade wuy wala wala wala wala kii nu mu tuddati wala. wala Khalifa Sall wala Khalifa Sall. mais amnistier ñi nga xam ne depuis 2012. ba tey am na loo xam ne dañ leen ko jiin te ñu nekk ci wetam. effectivement man eh, man sama interpellation en fait foofu la. c'est-à-dire ñi ñi dañu topp politique bi trop ba après dañuy nar a dañuy nar maanaam dugal ci benn genre affaire maintenant nag wax ji mooy Karim Karim Wade wala Khalifa Sall. maanaam lu ñuy ñod ne dañoo bëgg Sénégal li ñuy ñod ne dañoo am benn programme bu baax pour Sénégal que aussi ils sont pour la reddition des comptes que y a pas de pardon et tout est-ce que ñoom dinañ nangu ñu boole maanaam seen faveur de modification de loi boobu noonu. ak amnistie nar a dugg même si que je sais que mën nañ koo nangu. parce que ñoom l' essentiel mooy nañu bokk rek. mais est ce que dinañ ko bañ parce que xalifa comme li mu wax rek. l' essentiel mooy li ma la du ko bañ. mais man maay def interpellation ba doon devant le Sénégal pour ñu xam. loolu approfondir réflexion bi nga wax noonu pour ñu gën ko approfondir un tout ci des personnes yi nga xamante ni ñoom seen jëm bopp am na lu leen toppee mais lan nga yaakaar ne même cahier de charge ba bu ñu ko génne woon tey dinañ ko ci war a mën a segg parce que si la décision est déjà prise amatu leneen luñ ci xam nga amnistie moom euh, temps la c'est c'est à une année jusqu'à une autre année. xam naa que ni même xam naa ne bëgg na fi gën a yàgg. parce mhm. xam naa ne mi ngi lijjante benn xaaju mandat. si mi ngi waaye mi ngi dañu benn xaaju mandat parce que lépp da ko bëgg wékk xam nga Macky benn instant sooy xool le fait même de dem jàpp Sonko nii jàpp ko pour tëj ko de da koy jàpp maanaam pour maanaam affaire yi yëngatu mu am lu mu prolongé kii bi loolu lay stratégie en fait bu muy nëbb nii maintenant non non taxawal parce que fi fi nga teg sa loxo noonu c'est très a décortiquer un tout petit peu li nga expliquer pour ñi ñi mën a comprendre dama ne Macky Sall mi ngi fi bëgg yàgg ba tey Macky ko wékk ci Ousmane Sonko fu mu ne nii day xaar bac passé BFM passé BFM léegi mu BFM tey la commencé non je pense. waaw léegi mu jeex su jeexee après. Hmm. ci la bëgg engagé parce que année blanche lay daw fu mu nekk nii ci yenn. ci dossier Ousmane Sonko waaw maintenant nag après booba dina utiliser Ousmane Sonko pas pour tëj ko wala yooyu en fait pas carrément mais maanaam pour que dëkk bi am na mu demee après mu génne yu muy génne prolonger yenn yi ak. élection yi et tout loolu lay stratégie parce que su ma la déggee baax dafa mel da nga bi mu def avec euh, journal euh, le te euh, bi mu def le monde mhm. pour que ne am na fu réew mi di toll ak estabilité bi nga xamante ni moom lay laaj mbir yi mën na ëlbateeku de sorte que mais ñi muy waxtaanal ñi muy ñi muy ñi muy waxtaanal am na ku ku ci génn wax ci xam nga wax da koy dégg ci suuf mais doo ko dégg ci kaw lan lañ ci mën a jàng carrément parce que wax nopp koy dégg ci kaw mais xel moo koy dégg ci suuf xam nga Barthélémy Dias keroog génn na naan day yee jeunesse bi pour ñu fexe bañ a Macky Sall dellu ci kàddoom part wax na loolu semaine dernière wala dégluwoo ko. Mhm, déglu naa ko bu baax. waaw ah, dafa ne yéen jeunesse bi bu leen maanaam def noo xamante ne Macky Sall mën na dellu ci kàddoom. c'est-à-dire pour yow. c'est-à-dire que su dëkk bi jaxasoowee Macky Sall mën na <laughs> mën na ñëwaat gën a gën a ñëwaat en force wax na ko xam nga man su may jugé décision Macky Sall. Mhm. dama koy jugé si nga xam ne euh, ñoom lay gën a waxtaanal jamono bi wala ñoom la mës a gën a waxtaanal. lu mel nii lu tax ma rafet ma ñaaw njort par exemple si rafet fait que Macky Sall ne maanaam du présente pour une parce que ba léegi Farba Ngom waxu ci exemple <laughs> non dama jox exemple de. waaw waxagul ci Farba Ngom waxu ci. waay te Farba xam nañ que ni c' est quelqu'un de spontané te xam nañ que ni maanaam moom euh, il ne cache pas ses émotions et ses intentions nag tey na micro xamal Sénégalais ne yéen a ne ne Ousmane Sonko nañ ko konam nañ ko tëj te pourtant loolu am na même si que bi moo amagul. kon ça veut dire que troisième mandat bi man bis bu Farba Ngom génnoon taxawee ne Macky def troisième mandat boobu man mën naa koo gëm à quatre-vingt-dix pour cent mais comme Farba Ngom wax ci rek mooy loolu maintenant sur le cas du nouveau voilà deal entre euh, les gens du système muy Barth et tout mais deal la euh, parce que voilà xam nga Barth su taxawee naan ay waruñu saraan dëkk bi mujjee ci loxo armée kon loolu mooy ko ñoom ils veulent sauver juste leur peau parce que qu'est-ce qui se passe. parce que jàmm lay wut rek Sénégal. non utul jàmm non non non non non non c'est que Barth. je t'explique non non non xoolal Barth Barth le paroxysme de son ambition xam nga nan la woon. nekk maire de Dakar loolu kese la woon. xam nga nit bu nekk da nga koy juger fi mu bëgg egg ak fi fi maanaam fi mu sësee bëgg-bëgg moom foofu la egg maanaam nu Macky Sall fonkee palais bii nii avenue Roum bi nii. Hmm. Barth noonu la fonkee maire de Dakar. mais réduire nga ambition Barthélemy Dias de en tant que politicien mairie de Dakar kese. <laughs> li ma la wax nii Barth moom soo ubbee xol bi mu ngi ci xam naa li ma la wax dama ne la Barth paroxysme maanaam fu pla fu ambition plafonné maire de Dakar la. foofu rek la bëgg a yem. foofu rek la bëgg a loolu la mosoon rêvé ci àddunaam moo tax fu mu nekk nii. Hmm. mu jaral ko ay war yi yëpp nii maanaam war Ousmane Sonko at nu ko Ousmane te Sonko moo ko def maire at lu ñu mënti wax. lu ñu mënti wax Ousmane Sonko moo tax mu nekk candidat Ousmane Sonko moo tax mu nekk vous avez été surpris par fissure bi xaw a am seen diggante nii bert na la. bon du ma ne bert na ma mais li ma bertul mooy le fait que maanaam ñoom ñu grève retrouver wu pour essayer sauver juste maanaam ce système xam nga Sénégal problème yëpp système la. Ah. te système bi jéggi na Barth même si que moo ngénte Barth moo jàngal Barth moo yar Barth moo ko màggal ba jox ko mairie bi système boobu noonu. Hmm. mais système bi maanaam jéggi na Macky Sall jéggi na toutes les autorités maanaam doxalin la dama la jox exemple ndaw ci Barth. ak hmm. maire Dakar. lan moo am maire de Dakar maanaam amul benn gestion formelle ni contrôlée. d'accord kees bi at maire bi loxo ci poche la Alioune Ndoye bind na fi lettre Barth. mu xamal ne ko lan. question de voyage yi. question de voyage yi ba pare question de dépense da si amee dégg fa dépense yi moo ëpp investissement yi ñoom tam ñu répliquer que ni bu ñu deful voyage du ñu mën a am yenn ressources yi mën a tax ñu investir wala ñu tabax wala ñu réhabiliter ak yooyu. cent millions nit da ci mën a voyager dañu waxoon dëgg te yàlla tax un demi milliard nit da ci mën a voyager wax ma. non mais ñoom ñoo mën a xam exactement. non non non nañ ko justifier xam nga ñun Sénégal dafa am lu ñu wax man maanaam une gestion informelle des institutions. Mm-hmm. te maire yi ñoo ci ëpp soo gisee par exemple ba xam nga yeewi askan bi ils ont fait un bon résultat ci élection locale yi. mais la plupart des maires en dehors de Sonko ñëpp a tëj seen gémmiñ ñëpp a noppi. ñëpp noppi Sonko kese moo dem Ziguinchor jël mairim doxal fa transparence parce que xam na ne gars yi ñu ngi koy topp ñi si des ñëpp dañ leen bàyyi ñu doxal 6 mois 7 mois 8 mois. après ku nekk tëj sa gémmiñ pourquoi parce que corps de dugg na parce que nu muy refléter système bi mooy maanaam mairie yi da ngay jël dépense di maye. Ah. Khalifa Sall ba nga ko jàppee lan la wax dama doon maye ay ay don la affaire noonu. dama fekkoon ñu koy def ma ñëw dama fekk ñu koy def ma ñëw def ko mais dëkk du doxee noonu. social day doxe transparence dañuy xam ne maanaam même le petit jouet dañuy xam ne jouet bi nii dix mille lay jar ci doomu diw ak diw la dem affaire yi day leer. d'accord mais fii nii loolu leerul maintenant Alioune Ndoye ba mu commencé di acculer Barth. Mhm. da nga dégg Alioune Ndoye waxaat. waxatul. waaw benn benn ñaas ñaas boobu lañ. mais ba léegi tey amuñu accord ci affaire ci affaire bi nga xamante ni daanaka moo di réhabilitation marché boobu nga xamante ni ñu bare bari Sénégal yi ñu ngi ci te même bu nekkul ci wàllum cadre politique bi ñu amul tamit. ci côté programme mais est-ce que déggati nga coow li. non coow li kay léegi temps yii gëj naa ko dégg. Ah, waaw léegi doo doo ko déggati. kon da nga jàpp ne Barthélémy Dias ak euh, ñoom ñëpp léegi jubóo nañu carrément. bah oui bien sûr mais Barth nëbbul loolu Barth nëbbu ko il en montrant et en voilà de façon peut-être très arrogante que effectivement léegi mi ngi contre Sonko et tout loolu moo doon euh, maanaam le voilà <laughs> l'acte du pacte su ma mënee waxee noonu loolu kese la mais du leneen. maintenant maintenant pour expliquer loolu man du ma attardé wu ci Barth quoi parce que franchement Barth benn kii la quoi. maintenant ah, mais tamit c'est important ci affaire Ousmane. non c'est important pour yee sénégalais yi pour ñu xam ñiy diriger que lépp lu leen soxal mooy toog seen poste yor seen poche. loolu am. mais c'est la vérité non mais non mais monsieur Sarr ànd ak ko ci politique la bokk. politicien dinañ ànd ak nit nii tey suba nga xool xam ne li nga doon doxaleek moom. bayatul la mais tàqalikoo bu ñu bu ñu légitimer loolu. man du ma légitimer loolu cest à il faut que ñu nekk ñu exemplaire ci xale yi ndaw yi parce que aussi xale yi ndaw yi nii ñu nekk fii. Ah. mais dañuy roy. si ñoom ci biir am na ñoo xam ne suba c'est les futurs députés. Ah. ñii c'est les futurs ñii c'est les futurs mhm. donc ça veut que waruñu légitimer yenn gestes yi en fait man ko nangu. du ma ko nangu maanaam mën nga ànd ak nit de façon publique benn moment. waaw ngeen dem ba waroo je suis d'accord nga toog jàpp sa ñaambur xam li nga xam. donc voilà loolu kese la man man ak Idrissa ànd nañu. mais xam naa lu bëri ci Idrissa loo xam ne mosuma toog télé wax ko. maanaam sur le plan peut-être politique ak nu mu doxalee waxtaan naa ci commenté naa ci mais je sais beaucoup de choses yoo xam ne assez profond et assez sensible du ma mës a toog wax ko. est aussi ambition bi mu am ci Khalifa Babacar Sall moo tax aussi na loo xam ne. faaw amul ambition si Khalifa Sall. Bart xam lu moom ambition. toog mairie de Dakar di fa ne noongi noongi. mais nag gëm na xalifa te bu mu toll nii mu ngi. Bart musul gëm xalifa Bart c'était un tanoriste. nekkul woon xalifiste Bart tanoriste la c'est juste que benn instant dafa commencé woon defante gars parce que ba ba Macky di soo ko toog Macky da ko ko bëggoon sonal maanaam kii ko après mu daw nekk ci ginnaaw Khalifa Sall rek si la demee Medina këf micro bi ne ko ay xalifa candidat nga yitu xalifa boo xam ne amul sax fit wax ne candidat mhm. sa intérêt. peuple bi dañuy xam te dafa am ay maanaam faay yoo xamante ne da ci génn toujours. maanaam lu mel ni ay trahison lu mel ni ay lâcheté yu mel ni yooyu noonu mais politique soo si dund dëgg dëgg dëgg. su la ah. Sénégal taxee jug dëgg dëgg su la doomu Sénégal taxee jug dëgg dëgg dëgg kese ngay wax dëgg kese ngay doxal. mais xam nga keroog baat dafa toog naan nu xa nu nu nu ñu tëjee Karim wàdd tëj ko xalifa maanaam. Ah. injustice yàgg na ci dëkk bi. Mhm. dégg de nee ah. injustice yàgg na ci dëkk bi. ça veut dire que Ousmane Sonko dafa war a nangu injustice bu ñuy teg ci kawam mu dem tëddi prison c'est ce qu'il a dit man a ma di ngeen di déglu wala parce que dafa jàpp ne euh, malgré lu mën a am nit ñi dinañuy xeex mais am na fu ñu toll faaw ñu toog waxtaan même bu fekkee injustice day am faaw ñu toog waxtaan toog waxtaan Macky Sall moo ko bëggul Ousmane Sonko non non Ousmane Sonko bañul waxtaan je t'explique une chose Ousmane Sonko bañul waxtaan mhm. Macky Sall moo bëgg chaque fois su bëggee jël nit toroxal ko du ubbi benn voie de discussion avec yow te loolu mooy maanaam sa plus te xamu ko parce que xam nga président yow toit as tous les pouvoirs. Ouais. mais lenn benn lenn mooy sa pouvoir légitime. c' est pas transgressé c' est pas agressé maanaam yow sa pouvoir lenn kese la mooy maanaam le pouvoir d' intimidation xam nga intimidation mooy nga woo nit ki walla nga yónni ci moom wax ak moom loo xam ne xam na ne que ne sa doole xajul ci moom. mais da ngay toog jël nit ki di ko traquer di ko toroxlu itu nit ñi toog di ko menacer de mort ñi ñi toog di ko promettre que dañ rey nga yeewu jël ñoon di fal directeur di leen fal ay ministre d'accord donc voilà te loolu du dëkk. mais dinañu ramener un peu ci dialogue bi y a des gens yi persistent ba léegi ne pour que Sénégal ñu mën a déggoo coow ba ñu am faaw ñu dialogué te pourtant bi Macky Sall président Macky Sall wootee dialogue ñu mel ni yow da ngeen ne non du ngeen dem participer ci dialogue boobu de te ñu jàpp ne dialogue rek moo mën a arranger mbir yi fu nii lan nga yaakaar moo war a nekk leneen stratégie bi ñu mën a am. non xam nga xam nga dialogue man je l'ai dit dama am solo la. waaw le principe tous les opposants yi bi muy man muy Sonko muy keneen mais dialogue dafa ànd ak ay préalable. comme yan. non xam nga nit. yéen defu leen sax proposition yéen dañoo wax dialogue rek. su ma la doon invité su ma doon ngénte wala may takk jabar di la invité dina am nu ma la invité. waay du la woone la waaye Babacar damay ngénte ah soo ñëwul yaa xam. loolu la wax loolu la ma ki wax ku gedd saa ay benn teg ci nga jël nga jël xale yëpp tëj leen Sonko pour yow war na mën a parce que Sonko du Barth du Khalifa ah. am na ngor boo xamante ne mënul dem dialoguer pendant ce temps ñu ngi tëj ay lieutenant tëj ay doomu dëkk bi ñoo xam maanaam moom moo tax ñu mu ñu tëj ko loolu du ko def pourquoi mu koy def man su ko defoon dama bàyyi ko te xam naa du ko def d'accord donc voilà maintenant nag yow mënoo woote dialogue pendant ce temps nga jël nit ki jël njabootam di ko toroxal di ko dóor di ko def leen loolu mënul nekk te Macky Sall xanaa xam Macky Sall lu wax ci di bëri yëpp Macky Sall mosul bëgg Ousmane ko ñëw dialogue mosu ko bëgg mosu ko bëgg bëggu ko. li ngay wax ni def ah, contradictoire na par rapport ak souhait bi muy wax te toutes les forces vives de la nation la wax bàyyiwul kenn. te jàpp na ne Macky su xamoon ne su Macky woon su respecté woon l' expression force vive dina xam ne Sonko c' est la plus grande force de ce pays là su ko respecté woon. parce que dëkk bi yëpp li ma tam di wax mooy am soo gisee Sénégal instable lenn kese moo tax. Hmm. mooy maanaam y' a quelqu' un qui er la majorité euh, nu mu hmm. bañ ko ko nangul bañ ko ko respecté te muy Ousmane Sonko. loolu moo indi coow li loolu lekk tax Sénégal instable. mais yàppoor tamit ne. bis bu Macky yee woon am benn relation de cordialité. parce que loolu la président di taxawee président suy jeexal da ngay am benn relation de cordialité avec tes opposants parce que xamoo kan la si yàlla di teg nga am ñoom relation de cordialité cordialité ça pas dire amitié ça pas dire complicité ça pas dire deal xam nga luy cordialité. Mhm. maanaam mooy nga respecté nit ki rek simplement. mais bu fekkee ñun ñu tam ñu ci bëree bëri koo ci woo ci dara mu dem ba benn jeune cadre bu mel ni monsieur Tahirou Sarr am benn mouvement am bëgg a nekk président pour 2024 soo ko wooyee ci waxtaan pour jàmmi réew mi wala leneen leneen mu bañ yooyu tamit du neex a arranger situation bi. non ba bañu ñu dem ma ki moo si mettre les formes mooy li ma la wax rek munoo munuma takk jabar woo la ne la saa damay takk jabar soo ñëwul yaa xam loolu du loolu du invitation. d'accord. du invitation Macky Sall invité wul kenn ci dialogue bi ñi fa dem ñëpp lenn kese leen fa yóbbu ñii maanaam ñoom système bi la ñuy la ñuy dundee. Mhm. maanaam enveloppe tabaski ak mhm. maanaam euh, frais médicaux et tout moo leen fa yóbbu. ñii les principaux ñu fa nekk. waaw mooy maanaam les supposés candidats. Mhm. ñoom négocier nu ñu bokkee lañ fa demee. d'accord donc ça veut dire dialogue bi lenn kese si amoon maanaam isoler Ousmane Sonko isole cette opposition anti système loolu kese la du naa nag ku nekk mën na ci beneen appréciation mais ce qui est sûr et certain mooy Ousmane Sonko tëjul buntu pour waxtaan wax ji mooy ki toog fii yàlla def ko kilifa Sénégal pour le moment muy Macky Sall. moom moo bëggul waxtaan ak Ousmane Sonko. moom moo tànn ñu muy waxtaanal moo bëgg itam tànn ñiy dem élection te loolu du yoon. yaakaar naa bu baax ni ngay déglu euh, ki nga xamante ni moo di Pierre Atepa bi la majeure partie dañuy citer son nom ci ñi nga xamante ni éventuellement dañuy àbb pour que moom ci jëm boppam mu woo Sonko ci toog taabul waxtaan. tey jii ndax jàpp nga ne véritablement ak lu mënti xew Ousmane Sonko war na mën a changer benn casquette mooy toog dialogue avec président pour une bonne fois ñu mën a déggoo. li ma la ko dégg Macky Sall moo bëggul dialogue Ousmane Sonko wala déggoo li ma la wax Macky Sall bëggul dialogue ak usman Sonko. ak lu nit ñi mënti def kon dialogue. xam nga xam nga xam nga Macky Sall dafa taxawaay taxawaayu pàpp ci kër ñaari doom di xeex. waaw ah? moom mu dem ba faral benn doom bi. léegi maanaam au lieu mu toog woo ñaari doom yi. ak toog moom mu toog ba woo sax jabar ji. Mhm. mais defu ko de daa jël benn doom faral ko maanaam mën na nekk Mame Mbaye Niang mën na nekk Adji saar après mu toog ne sama doom bi moom na dali fële. loolu def ci Macky moo buggul dialogue yi moo buggul waxtaan loolu kese la maintenant nag toog ay nit yoo xam dañoo jéexal wër la di la yokk. fit at yooyu noonu loolu moom la concerné amul benn problème mais li am solo am solo mooy toutes les décisions yu jël ci dialogue bi du transmettre ci askan bi parce que maanaam majorité askan bi. gëmuñu ñu fa toogoon di dialogue. c'est ça la mais li ñuy décider mën na wàcc mu nekk bien. li ñuy décider lenn kese la nar a doon dañuy décider loo xam maanaam narul wàcc ci askan bi parce que après day indi maanaam pëccëxoo at xeex xam nga dëkk décision état day refléter maanaam ci askan bi lu ñu bëgg at askan bi fu ñu toll. mais fii Sénégal décision état bi reflété wul ci askan bi loolu mooy problème bi. d'accord mais ci kaawu ñaari cas yi nga nga may ma ko une minute rek ñu des foofu y'a Karim Wade qui demande une révision par rapport ak procès il y a Khalifa Ababacar Sall qui dit non comme ñoo ma yàqaloon nañ fexe lijjanti ko ba nuñ mënti def. mën naa non Khalifa kenn yàqalu ko cest dire Khalifa c'est vrai que Macky Sall de le bloquer aux a a l'a accusé mooy moom nan la war a mën a toogee sénégalais yi baalu leen àq ba wax ne maanaam njuumte am na mais dañu war a xolaat nu ñuy doxalee c'est ça loolu mooy position mais Khalifa Sall kenn yàqalu ko ci loo xam c'est du faux eh, eh, Macky Sall contre naa ko trop mais li les intentions étaient vrai les motifs sont vrais les motifs parce que Khalifa dem na ba benn moment boo xam ne bañ maanaam bañ ko fay loowee xaalis bi da ko bëggoon fay fexe na ba jaaye ay alalam ah, il y a pas qui disait même que ni même s'il le faut ñu cotiser pour que joxe. saa waay jarul muy cotiser il a assez d' pour le payer. fii on a des opposants milliardaires. Khalifa Sall. ma ne la on a des ma ne la on a des man Sénégal li ma fi xam dafa bëri xam man booy laa si seen biir. man fii gis fi opposants yoo xam ne seen excuse seen kër robinet c'est en argent et heure bi ñu ngi taxaw ne dañu comprendre ñàkk sénégalais dañu leen bëgg sauver loolu bu doon lekk ne <laughs> li ma xam ba xam mooy que xalifa doit de l'argent au trésor public Karim Wade nous doit de l'argent loolu moom xam naa ko. waaw maintenant nag. Mhm. on va profiter d'une certaine amnistie boo xam Macky Sall mi ngi ko bëgg dugal sur des révisions électorales et tout. Ouais. mais on verra li am solo am solo mooy lu ñu mën na décider en petite minorité en minorité. Mm. la majorité ñoom ñi ngi toog di seetaan te incha allah dinañ xam nan lañ ci amee suñu taxawaay. Euh, waxtaan bi am biir palais le nom Ousmane Sonko bokk na ci. parce que bu ñu sukkandikoo ci l'observateur quotidien mu ngi ñuy xamal ne waxtaan bi bi ñu ko jibale dañ ne investiture bi ñu fas yéene defal Ousmane Sonko le 15 bi ñu dëgmal est war a mën a am la ci koo xamante ni dañ ko condamné à deux reprises benn bi mooy ci mbirum Mame Mbaye Niang beneen bi ci mbirum Adji Sarr la mu mel ni donc ba léegi nii beneen côté bi amatuñ nangu ko ne Ousmane Sonko ko war a mën a bokk ci élection présidentielle déjà ndax jàpp nga ne décision yi wala waxtaan boobu rek am na lu mën a indi ci a ñëw le 15 juillet bon man moom je suis pour que son Sonko bokk ci élection yi je me bats pour que Ousmane Sonko bokk ci élection yi et gëm naa ne Ousmane Sonko dina nekk incha allah candidat parce que dama xam ne ki fi toog nii li mu bëgg mënul nekk te sénégalais yi de jour en jour ñu ngi koy prouver que ne mënul nekk. maintenant organisation investiture bi loolu. Euh, militants yi ñoo ko organisé. Mhm. ñu porte seen choix ci Ousmane Sonko ce qui est noble et d'ailleurs même j'appelle tous les sénégalais ñu fa dell pour que ñu wan Macky Sall ne ko li mu bëgg. àndul ak maanaam bëgg-bëgg ñun waa askan bi parce que askan bi am na ñoo xam ne xëj na sax amuñu volonté wu voter Ousmane Sonko wala am nañ ku ñu bëggal sànni carte keneen. Mhm. mais quand même xam nañ ne Ousmane Sonko lu ñu ko teg lépp depuis le début ci complot yëpp du yoon. te loolu dafa feeñ ba nga xam ne même la justice n'a pas pu confirmer ce complot là parce que lu ñu ko condamné c'est c'est du rien du tout. d'accord donc voilà maintenant nag investiture bi dina am. Mhm. démonstration de force dina am. maintenant nag Macky Sall aura sa lecture. peut-être sa dernière lecture. avant de def lu mu bëgg def mais ce qui est sûr mooy dañ koy ñaan rek mu am benn preuve de sagesse parce que Macky Sall yàlla da ko teral quoi c'est-à-dire yow dem nga am premier mandat. premier mandat nga dig ñu cinq ans defoo ko ñu bàyyi la ci biir nga ñëwaat am deuxième mandat. Mhm. mais léegi c'est-à-dire na nice quoi Macky Sall heure bi war na fi mën a jugee ah bañ a nekk candidat régler élection bu normal ñëpp bokk. su ko neexee ba 2029 su ko neexee mën na ñëwaat présenté wu te xam naa sax sénégalais yi je les connais y a des nostalgiques yoo xam ne maanaam d'ici 2029 am na ñoo xam ne ñoom ñooy génn naan ay Macky dañ la rëccu ñëwaatal nekk président man la xam naa je connais je connais certains sénégalais maintenant ça dit na respecté loolu parce que aussi Macky il prend de l'âge mi ngi jëm mag il doit avoir benn genre mbégte Macky soo ko xool Macky a ce visage ferme que il n'est même pas heureux parce que maanaam dafa instant bi nii moo gën a di si kawam. muy Ousmane Sonko Ousmane Sonko. oui c'est ça loolu kese la te Ousmane Sonko nattoom la mais en même temps mooy suturaam. suturaam mooy que Ousmane Sonko ëllëg su yàlla fi mu nekk président incha si dëkk bi qu' qui va se passer du fi nekk di fayanto du fi nekk maanaam ne day jàpp Macky Sall wala day jàpp Marème Faye. non mais moom moo ko wax. Macky Sall waxu ko c' est Ousmane Sonko même. Sonko ne l'a jamais dit. parce que il a dit que ni Ousmane Sonko lu mu wax man loolu laa wax. il a dit que non non non attends si gërëm il a que corps de contrôle qui sont là. waay qui épinglé certaines autorités. te il faut loolu man je suis dans cette position là a sax radical loolu dama def lu leer man am na ñoo xam ne. xam nga yow personne boo nekk xoolal dama ne am na baa ma expliqué la man. ma baa ma expliqué la. waay man dama ne corps de contrôle yi nga xam ne c'était même du temps de Wade. is mhm. amee dégg. ñu mu jàpp même su fekkee dañu dee. à titre posthume leur famille sauront que seen papa def sàcc. wala yow déggul ma la wax ñun on a un programme déglu ma déglu ma déglu ma expliqué la on a un programme qui s'appelle PVR. prison des voleurs de la fii lañ ko bëgg a sañ jëm ñaaju ci tàngaay bi at ban bi. incha allah parce que ah, non dëkk bi dafa jot que c' est pas parce que tu es ministre que tu dois être riche c' est pas parce que tu es directeur que tu dois être riche c' est pas parce que tu es PCA PCA moom du sax poste PCA c' pas un poste non sérieusement PCA tu les vois dans les sociétés privées mhm. maanaam mooy société yoo xam ne dafa am benn genre de copropriété yoo xam ne dañu ut ku leen maanaam gérer dans la sagesse ba nga xam ne parti duñu xuloo mais tu vois des am ci dëkk. Ah, avec de plus de ay 5 6 7 millions. yoon. ñun dañu bëgg maanaam réduction du train train de vie de l'État on va tout diviser par deux. mais suñu naree toppee noonu président bu ñëw teg code de contrôle yi ci nangam nangam des sénégalais concentré wu ci loolu. Sénégal xam nga xam nga Sénégal man soo gisee ma mère Ablaye Wade xamul tax. déedéet Ablaye Wade moo amoon chance su jàppale sénégalais yi Ablaye Wade moo amoon chance su sauver sénégalais yi te la seule chose de sauver le le Sénégal xam nga mooy lan mooy de laisser la justice faire son de sanctionner de corriger. c'est pas le président qui sanctionne c'est pas le président qui corrige c'est pas le président qui sort le bâton c'est la justice dans un pays qui sort le bâton justice moo gën a màgg président justice moo gën a sax màgg diine parce que pour que diine ñëpp am jàmm pour que chrétien bi musulman bi respectante mhm. ba nga xam ne kenn du romb sa morom maanaam di siffler si sa prière wala di ko kat si sa sijaada parce que la justice est dans le pays d'accord baal ne man damay bañ bàyyi yoon def liggéeyam ñee damay toppe mais yow Abdoulaye amul pour toppe amul pour toppe Macky Sall def la même chose ne day ne non genre dossier yu bëri maas teg sama loxo et tout non parce que am na yoo xam ne mën na taal réew mi. sàcc du exemple xam nga Sénégal da ngay xool soo gisee par exemple ñun lu tax suñu jeunesse bi éveillé wu trop trop ci politique xam nga lu tax. parce que on a de mauvais modèles. on a des modèles hmm. dëkk yi nga xam maanaam c'est des hommes d'affaires qui roulent maanaam en voiture de luxe yaa may dégg mhm. mais fii Sénégal c'est les politiciens qui roulent en voiture de luxe est-ce que dégg ah. léegi du xale yi dañuy nekk ci banlieue bi gisoon ne waa ji benn maan la woon bu doon mhm. topp Macky Sall wala bu doon topp Amadou Ba instant bi ni Amadou Ba falu na wala Macky falu na wala keneen falu na waa ji tekki na est-ce que yaa dégg te loolu du exemple bu baax ci dëkk mhm. on a de mauvais exemples de réussite dans ce pays là a des hommes d'affaires très très honorables très très dignes et parce que xam naa si ñoo xam ñu ci bitim réew et tout mais la majorité des exemples qu'on de réussite c'est mhm. des voleurs. d'accord mais loolu yaakaaroo que ne instance yi ñuy teg parfois ñi nekk ay corps de contrôle wala d'habitude muy nekk ay cours yoo xamante ni day topp ay nit yu peuple yaakaaroo que ne transparence bi war pour ñu def ko ci nit ñi leen war a àtte wala ñi leen topp. parce que séparation parce que séparation ci dëkk bi xam nga la Euh, nu mu tuuti euh, les corps de contrôle dañ leen. Euh, dañuy détaché wu catégoriquement. non non non dans les pays sérieux mhm. corps de contrôle yi. Mhm. dañuy am pouvoir judiciaire. waay par exemple benn Nafi Ngom Keïta. Mhm. su xamee ne ministre bi dafa luubal. su xamee li dafa luubal président yoonam neew ci de. waaw Nafi Ngom Keïta su jugé na le ministre doit être mis aux arrêts. ce ministre là doit être mis aux arrêts loolu moom la cest dire corps de contrôle. corps policier la mais sur un plan financier et de contrôle pour les affaires étatiques. te dañ ko war a dooleel ba mu am benn puissance bu mag bi. am na fii am na doole xam nga la ñu bàyyi la nga am def sa enquête. parce que Macky Sall lan lan lan lan mooy stratégie et peut sax ne Macky Sall mais maanaam système bi xam la mooy stratégie bi. Hmm. corps de contrôle day def liggéeyam génne résultat yu leer. parce que enquête yu minutieuse la def. enquête yu leer nañ la def. fa nekk. voilà su xoolee ne kii arrangé wu ko mu bàyyi justice faire son travail su xamee ne kii nii ah c'est mon ami c'est l'ami de ma femme et tout yaa may dégg. mu woo ko. ne ko waaye sa waay <laughs> xaalis bi moom jàppal ne jéem cee nekk maire sa dëkk. mais loolu am si dëkk bi. d'accord et sax ma ne am na ñu bari ñoo xam ne heure bi nii Macky Sall mi ngi leen di politique loo ah. même du Wade du temps de te yàlla xam na ne mosuñu am ambition nekk maire et man xam naa suñu bëri. mais parce que dañ leen jàpp ci ay yenn affaire Macky Sall ne ne eh, seen xaalis bi dem leen politiquer ko. pour man. ba oui su dul moom pour moom pour kan la mën na <laughs> te loolu mooy système bi te loolu yëpp dañ ko war a dindi. Hmm. da ngay xool par exemple fii nu état bi di doxee. waaw xoolal yow Sénégal ñaata ambassade la am si si bitim réew. Hmm. ambassade yu bëri yoo xam ne entretien kese la. defuñu dara amuñu liggéey et tout et suñu division ambassade yi par deux. Ah. peut être même par trois. Ah. xool maanaam ay bureau yoo xam dañ fay ubbi juste maanaam pour rek yombal këyit yi dañuy ubbi benn bureau juridique boo xam pour deux choses këyit ak ay avocats yoo xam dañ fay toog pour dimbali Sénégal yi nga xam dañoo nekk ci ay jafe-jafe ci réew moom noonu. loolu lan moo gën a yomb et c' est moins cher que de payer un ambassadeur c' est de moins cher que de payer un consul c' est moins cher que de yi. Ah. ak ay cousines ak ay tata d'accord te loolu yëpp ñun ñoo ciy perte pendant ce temps. Mhm. suukar di yokku ceeb du yokku dugub du yokk mbokk di yokk même jaaykatu xar yi sax ils problème pour nourrir parce que lépp a yokk ci dëkk bi. waay euh, ci ci ci benn côté mooy investiture mooy bi ma doon wax sànq waa Pastef ñoom yow da nga jàpp ne ñoom seen xel dal. wala ndax ñoom euh, dafa am loo xam ne dañ ko xam te yenn Sénégalais yi xamuñu ko ba tax nañu dugg ci wàllum investiture sachant li nekk ci ndodd Ousmane Sonko wala ndax mën nañ jàpp ko ne continuité wala doxalin boo xam ne parti da ko war a respecté investiture yàgg naa am sans même yàgg naa am sans même que candidat bi ñëw alors que candidat bi il est en parfaite liberté dama la jox exemple ndaw en 2019 waaw Babacar Diop actuel maire de mhm. defoon na investiture fii nii place de mhm. na mais narul woon ñëw xalaatul woon ñëw prévoir woon ñëw ba mu gisee direct bi xool nu mu feesee ci la soleil yëre olofam ñëw investiture yàgg naa am. mais bi Ousmane Sonko du dem. Ousmane Sonko euh, muy dem ñàkk dem d'ici là yàlla kese moo xam ah parce que lu ne mën am ci dëkk bi à tout moment. maintenant ce qui se que investiture bi dina am Macky dina lire moom ak ay renseignements généraux que ñun kii la ñu tabb. maanaam waa Pastef comme suñ candidat. waaw waa Pastef dañ ko wax ne kii la ñu tabb comme candidat. d'accord nangul ñu ko. jàmm am ci dëkk bi nangul ñu ko ngir yàlla ni la ko Abdoulaye Wade nangule woon loolu kese la ñuy ñaan Macky Sall te c'est pas trop tard pour moom c'est pas trop tard pour moom c'est pas trop tard pour le Sénégal parce aussi ñun jàmm jàmm moo tax ñu politique bëgg Sénégal avancé moo tax ñu politique bëgg dund Sénégal yomb moo tax ñu politique maintenant dañ ko war a teg ci dëgg waruñ ko teg ci yàqante waruñ ko teg maanaam ci jël nit parce que da nga ragal ne mu a a toroxal ay njabootam ndax yaakaaru lu jafe lay doon parce Euh, pour annoncer no candidatures am ci ndorteel gi kat di nga mu ne dina def kim kàttanam de sorte que décision de justice yi fi nekk ñu respecté ko mais exécuté ko. waaw mooy li ma la wax xam nga Macky Sall ba muy def discours am bi il a été très très menaçant dafa simmi euh, mbubb ku fi bëgg yàgg tey faagaagal comme ni ñu ko ma gisee. bëgg sol mbubb ki bëgg dem at kii dem waaye bëgg doxal yoon te yoon boobu noonu wootewu ko ci lenn. lu dul ci Ousmane Sonko dama lay jox benn exemple ndaw. ba mhm. Sall heure bi nii ñaata corps de contrôle ñoo épinglé ay ministres am yoo xam ne heure bi suñ si seen biir la nara a tànn candidat benn. Mhm. justice daan na Karim Wade justice daan na Khalifa Sall ñooñ ñëpp mu bëgg leen maanaam dugalaat mu jël koo xam ne justice daan ko ci lenn lu leer. si amee dégg parce que Sonko musuñ ko sàcc musuñ ko jiin deux mille musuñ ko jiin dix mille musuñ ko jiin million musuñ ko jiin milliard maanaam exécution bi kon da ko yéex a wax daal wala da ko yéex a doxal musu ko doxal Macky Sall il serait grand président su doon appliqué maanaam lu ko corps de contrôle yi doon digal hmm. mais heure bi nii kenn du gën a transparent Macky Sall parce que man yàlla def ma nam président am na koo xam ne certes ñoo cheminé woon ñoo politiquandoo il s'est pour moi ñi dem ba falu mu luubal ay milliards luubal ay millions mais je le sacrifie au nom du peuple parce que c'est le peuple qui m'a mis <laughs> en tant que président président day am le pouvoir sacrificiel. waa mooy maanaam certes àndoon nañu mais tu fait des erreurs. soit on va se séparer de façon très bien nga toog jàpp sa ñàmbur et tout parce que yow xam nga sa responsabilité ci erreur bi wala soit on va se séparer de façon très judiciaire parce que da nga luubal xaalisu dëkk bi parce que nañu wax ne dëgg. Mhm. Sénégal ngay gis ministre boo xamante ne. ay oto yoo xam ne yëpp ay oto yoo xam ça dépasse les cent millions lay dawal te pourtant état bi prévoir na budget pour les mhm. voitures de fonction. voiture de fonction état bi warul romb vingt vingt mille à vingt cinq millions maximum. demoon na ba jëloon fi benn politique pour réduire ci côté euh, téléphone yeeg yooyu noonu yëpp mais presque dafa mel ni. dama ne la ñoon xam lu ñu bëgg dëkk boo xam ne autorité dina am voiture de fonction mais ci lay yem. waaw ah. autorité boo xam ne day dem déglu ma day dem rang yi di di di di jënd essence ak salaire parce que Sénégal mënoo nekk fii nekk fi ministre wala député am un salaire de plus deux millions et quelques yow nga tane sénégalais yëpp te doo jënd essence lan moo tax loolu au nom de quoi man d'accord naa état mën na am parking automobile je suis d'accord état mën na am ministre bi war a dem benn genre campagne wala euh, maanaam campagne boo xam ça concerne les affaires d'état je bien mu war a dem parking mu jox ñu jox ko maanaam autorisation mu jëlaat deux voitures de plus pour ñu ko yóbbu suñu da koy mais da nga jël ministre mën na am cinq six voitures moom day am oto deux oto suy déplacé wu jabaram day am oto ak chauffeur doom yi dañuy am oto jànk bi day am oto am na sax oto yoo xam maanaam dañ ko jël ay oto tool la ay ay pick-up bâche ko maanaam les euh, cultivateurs du dimanche non c'est la vérité oto yoo xam ne dimanche ba dimanche lay tàkk wala oto yoo xam maanaam màggal Tuubaa ba wala Tiwaawan wala gaamu Tiwaawan kese lay tàkk te pourtant jëndoo ko ci sa la te yow ñu ko décider ñoom duñ jënd essence système bi moo nar a continuer doxee noonu après 2020 ñun ñu toog war a toog quoi gën a sonn gën a ñàkk et no non c'est pas ça day jeex. d'accord parce que Sénégal dafa am noo xam ne da koy doxee. Mhm. moo tax soo gisee politique bi violent parce que maanaam survie la. am na ñoo xam ne heure bi nii Macky Sall nee na nekkul candidat ñi ngi xataraayu di jooy di tiit heure bi nii Macky am na ñoo xam ne nee na nekkul candidat mais am na ñoo xam ne heure bi nii seen poste ñi ngi rawale lu bool loolu parce que xamuñu fu dëkk bi jëm. xamuñu qu'est-ce qui va se passer. ndax ëllëgu ndax demu Macky Sall bi ñuy profité. bah oui parce que tam Macky mën na tabb koo xam ne am na ñoo xam ne Macky Sall mooy seen seul candidat maanaam du ñoom seen yoon newu ci keneen. donc ça veut dire que instant yi ñu ngi préparé wu. mais lu wóor ba wóor mooy incha allah rabbi. waaw suñu ñun on a ces ambitions là suñu yàlla dénkee réew moom lu wóor ba wóor mooy. waaw li Abdoulaye waroon def depuis deux mille fa la ñuy tàmbalee ba fii incha allah. su ma lay déglu ngay ngay expliquer ci ay programme ak stratégie dafay mel ni damay damay damay am damay sentir que ne monsieur Tahirou Sarr day lire boppam ci Ousmane Sonko parce que la majeure partie dafa mel da ngay mettre am parallèle même ni ngay doxalee ak sa liggéey ni nga koy defee mais tamit say programme parfois ni muy demee dafa mel da ngay liir sa bopp ci ki nga xam moom moo nekk Ousmane Sonko est-ce que réellement yow su programme mën nañ koo teg ci benn côté ne benn copie collé lay doon ci côté Ousmane Sonko wala ndax dañoo mën a jàpp ko ne réellement yow ni muy doxalee wala ambition bi mu am yow tamit même ambition yi moom nga am. non euh, peut-être que xalaat yi ñoo fekkante. gis man sama programme ba ma koy bind. waaw jiitu na euh, sax sama génn ci Idrissa Seck. mën na ko témoigner parce que dama ko doon jox parfois yenn pàcc ci sama programme. Mhm. man j'ai toujours été quelqu'un nationaliste. man doomu Sénégal jiitu ci dëkk Sénégal loolu laa mës a gën parce que loolu laa jàng bitim réew parce que tamit bitim réew soo si duggee da ngay jàng loo xam ne da amal njëriñ heure bi su ma neexoon mënoon naa toog Europe ba léegi ne ci seddaay bi di liggéey et tout jàpp sama ñàmboor di dund di sant mais dafa am loo xam ne dama ko bëgg ci Sénégal te dama ko bëggale Sénégalais yi surtout ndawu Sénégalais yi léegi Ousmane ko suñu programme c'est vrai méngoo na waaw mais y une très différence dans la radicalité que man jàppee ma sama bopp politicien man pour man je suis un réformateur. d'accord maintenant nag mën naa yor mbubbu politicien parce que Sénégal il faut ñu xam la ci politique. mais man je propose des réformes. Mm -hmm. yoo xamante ne ku ko liir. Mhm. di nga xam ne lii c'est réalisable. man du ma wax lu ma gëmul. est-ce que amee dégg. Ah. xam fii dañuy woote par exemple da ngay xool suñu suñ suñu hymne national panafrica on t'apprend le panafricanisme. Mhm. sooy waat serment panafricanisme. Mhm. sooy maanaam euh, même dans les politiques panafricanisme. mais lan lan lan lañ fi alors que pendant ce temps Ghana mi ngi defar oto yow jëndoo otom Nigéria mi ngi defar oto yow jëndoo otom xalaatoo ko jënd bëggoo ko da dem ba Allemagne jënd ay oto cent dix millions dem bàyyi Italie dem bàyyi États-Unis oto yu cher ngay jënd te pourtant yow Afrique bi ngay woote ne dañ ko war a dooleel dañu war a dund si dañu war a teg seen biir am na ñoo xam ne yàlla sutura na ngi defar oto ay oto yu rafet nag. d'accord te jëndoo ko. est-ce que mën nañu xaar du jour au lendemain que mu mën a nekk une coalition buy dox entre yow sa mouvement ak le parti Pastef. yàlla mën na def lu nekk ci sama diggante ak Ousmane déjà man ak moom war nañu gisee pour waxtaan donc euh, incha yàlla baax na on verra lu ci ne mën na am mais lu wër ba wër mooy ñun. non waxtaan dafa ndànk monsieur Sarr boo demee ba décider donc waxtaan Ousmane Sonko parce que y a quelque chose. non parce qu'on est amis parce qu'on est frères parce qu'on partage le Sénégal parce qu'on aime le Sénégal loolu moo waral déjà loolu mooy base waxtaan bi foofu la yem. non dama ne. je te la base foofu la. à la base foofu la maintenant nag li am ci biir ak ci suuf. loolu ay waxtaan la te loolu sama diggante moom la at yàlla mi nga xam ne moo ko nara a mais li wóor ba wóor incha allah mooy ko Ousmane Sonko doomu Sénégal la Ousmane Sonko dañ ko war a nangul li ko yàlla def yàlla mooy tabb président ci dëkk mais yàlla tam mooy tabb l'opposant te Ousmane Sonko mooy opposant wu mooy nattoom te mooy suturaam sàmm ma ne mooy suturaam mooy Ousmane Sonko amul benn intention amul benn intérêt di fàggagal Macky Sall amu ko Macky Sall xëy na. xam na ko sax man je pense parce que je pense que moo gën a xam ne Ousmane Sonko nekkul si si si defante yooyu noonu. ni muy waxee jëmale ci moom. voilà maintenant nag il a accumulé beaucoup de fautes. Macky Sall a accumulé beaucoup de criminels financiers ci wetam. waaw xëj na ñooñu la bëgg sauver peut-être mais ce qui et certain. Mhm. mooy que même moom su ko yàlla nattoon. ba mu am ndam ci tànn kenn. Mm. kooku sax Sénégal def ko président. waaw terewul lu muy bañ day am. fii président bu fi mënti toog ne yaa yaakaar na yaa tànn kilo la remplacer da ngay nax sa bopp da nax sa bopp nguur yàlla moo koy joxe. kon tey par rapport ak coalition boobu may wax waxtaan bi ngeen fas yéene sikkandi dina nekk lu jafe ci yow parce que Ousmane Sonko yegg fa mu nekk léegi problème la. adduna bi léegi avancé na waxtaan yi mën na nekk à tout moment at fu mu mënti nekk. ci xarala yu yees yi nga ko sama nopp ak sa gémmiñ kolewul te pourtant ñu ngi déggante. c'est vrai mi ngi noonu. mais toog jàkkaarloo bi de moo ci dàq. loolu méttiwul façon canal de communication yi bëri na. mais donc est-ce que sénégalais yi wala ñi lay ànd ak yow dama la koy laaj exclusivement mën nga ko waxee ce parce que sa kër lu bari ci la bokk que du jour au lendemain nga am une coalition avec Ousmane Sonko pour 2024. c'est possible mais je dis bien c'est possible c'est pas impératif c'est pas euh, confirmé mais c'est possible parce que xam nga man ak Ousmane Sonko dañoo déggoo ci ce qu'on appelle maanaam être des antisystèmes des antisystèmes waaw waaw Ousmane Sonko xëj na daf ma si jiitu. waaw mais ba may xalaat loolu yàgg na mais dama ko nangu li yàlla def. parce que moom c'est le je dis je di le dis bien et fièrement. Mhm. moom c'est le boss de l'antisystème moom mooy kilifa gi. Mhm. moom moo xàll yoon bi. heure bi ne ñi fi toog ñeme waxtaanee système bi ci télé Ousmane Sonko moo tax et puis ñi fi toog dañu ni compter parce que soo xoolee ñi fi nekk ñëpp personne ne parle du système en dehors de peut-être man Sonko at Bougane mais sinon amul kenn ku toog fii di wax système bi alors que suñu problème du Macky suñu problème du Wade suñu problème du Niass suñu problème du keneen suñu problème maanaam mooy façon doxalin bi. mais est-ce que war nga ci mën a bokk parce que Bougane peut-être mën naa ko comprendre Ousmane Sonko peut-être bien mais yow est-ce que war nga ci mën bokk d'autant plus que collaborer nga quelqu'un boo xam ne il a pêché dans le système. te mu nekk te mu nekk te mu nekk aussi. Idrissa Seck nekk ministre j'ai été secrétaire national ci wetu Idriss xelal ko. conseiller te conseil yi ma ko doon jox yëpp xam na si dara sauvé naa ko ci lu bëri macha allah du ma <laughs> du ma wax lan la mais ñi may seetaan xam nañ ko benn moom xam na ko. Mhm. ñaar jàng naa gestion de parti politique ci moom jàng naa nan la nit di nekkee ministre. parce que ministre yi bëri ñu leen gis fii nii. ñu toog sol costume mu rafet sol seen yëre mu rafet. fekk yàlla xam na ne dañoo raamal dañoo maral pour nekk ko man nekkuma ci loolu aw ma deret boobu noonu. maa gënoon ndaw ci secrétaire national parti Idriss Seck. d'accord maa xoola j'étais le moins jeune j'étais le moins âgé du moins. Mhm. maa njëkk démissionné j'ai quatre de temps ba ñu confirmer son entrisme. d'accord est-ce que amee dégg baax na si. léegi dama lay dama lay wax benn affaire bu leer dama si jàng lu am solo maanaam jàng naa ci politique si lu leer a leer a leer. Mhm. mais tamit jàng naa ci maanaam doxalinu politique mais tam jàng naa ci lu ëpp maanaam nit ñi nan la leen politique jaral. man politique jaraluma ko damay expliqué ma naa nekk ci politique mhm. fekkee naa sax xoolal ñuy paccoo ay billet màkk man leen sama yaay du dem màkk ci ay xaalis politique man gëwuma loolu nga bañ ko man man mosuma lekk xaalis politique wallahi azim mais est li nga def noonu euh, ànd boobu liggéey boobu tey jii bu ñu lay déglu dafa mel ne mën nañu yaakaar ne ëllëg ci biir mën na am sa diggante ak Ousmane Sonko su boobaa est-ce ndax di nga di nga bàyyi wàlla xel bu baax a baax comme li ñëw sa diggante Idriss Seck ba tey fissure parce que déggoo leen ci ay mbir est-ce que ëllëg bi tey su demoon ba am sa diggante ak nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko beneen taxawalin lay doon wala réellement dafa am ci lu ngeen koy tënk. sama diggante ak Idriss Seck amul fissure dañoo nekkoon ci benn champ de bataille doon xeex ak kenn. waaw moom mu génn ci champ de bi dem fekki ku ñu doon xeexal amul fissure. d'accord Ousmane Sonko ci champ de bi la nekk man ak moom ñu bokk ko ànd ci di ci sant yàlla te yàlla suturaal nañu maanaam à quatre-vingt-dix cent ñoo déggoo ci lu bëri am nañ quelques différences peut-être par rapport ak affaire u panafricanisme mhm. affaire yi noonu parce que man je suis pas contre le panafricanisme contre ko mais dama ne du urgence ci Sénégal heure bi ni li ëppal solo Sénégal waaw mooy fexe ñuy contrôler étranger ci biir dëkk bi mhm. dañoo gëmloo CEDEAO boo xam ne jiguñu CEDEAO boo xam ne dafa ñoo def maanaam le mille yeneen dëkk yu ñu wër nekk le les mange mille maanaam ñun ñoo Sénégal ñoo baaxle ñoo neexle ñoo lépp ñu dem ba benn instant boo xam ne ñu ñu wër ñëpp ñëw fee si dëkk bi nekk fi benn genre euh, nu mu tudd ci communauté. Mhm. déjà di xaw a yàq suñu jikko ci yu bëri benn envahir nu jël suñu liggéey ndaw man mhm. loolu moo tax ma ne man je suis pas panafricain et puis j'ai toujours dit que utopie la. Mhm. pour que Afrique. Ah. booloo xam nga dëkk lu waaye utopie la parce que Afrique dafa bëri diine bëri ethnie on maanaam euh, <laughs> Afrique blanche on a une Afrique noire on a une Afrique métissée te ñëpp dañoo raciste seen biir. d'accord suñu waxante dëgg te yàlla tax kese. Hmm. kenn moo nekkoon trait d'union de l'Afrique te yàlla jël na fi muy Kadhafi. Kadhafi waay te il n'a jamais réussi parce que l'Afrique n'a pas pour destin de s'unir. de s'unir xam nga lan moo am. suñu njiit yi ñuy diriger. ñu am fulla ci kanamu tubaab yi am fulla ci kanamu puissance yi jiital ñu ñun suñ ko defee. au fur des années dinañ dem maanaam ba méngal lu ñu wax maanaam ku nekk am sa souveraineté totale après boobaa mën nañu réunir sur une table def ay yenn comité mais instant bi nii mhm. on est dans une désorganisation de pauvreté maanaam dañoo ànd di gën a ñàkk looloo am ci Sénégal su ma la waxoon tey na la monsieur Tahirou Sarr on dirait Ousmane Sonko est bel et bien benn référence ci yow ce serait pas trop dire Ousmane la ci yow oui c'est vrai Ousmane Sonko référence la parce que déjà ku la mag da ngay gis dara ci lu baax référence la Ousmane Sonko naturellement c'est c'est référence la modèle la wax naa ko ci njàmbarte ci fit ci caractère mais ab tamit si bëgg Sénégal man loolu mosuma ko nëbb. dans le cadre politique ak éventuel programme bi mu fas yéene tegal Sénégalais yi. programme am liir naa ko mooy li ma la wax on a certaines différences heure bi nii dama la jox exemple mu Sonko su nekkoon su yàlla dafa mu nekk ministre mu nekk. Euh, président président incha allah deux postes la mu mën a jox ma accepté ko su ma ko joxul bugguma te du ma nekk opposant am soit le ministre de l'immigration wala soit le ministre de te bëgg naa sax mu cumuler intérieur immigration mu doon benn ministère mu nekk benn parce que dëkk buy avancé day am ministère de l'immigration il faut être sérieux étranger yi am nañ fi place étranger yi dañ fi war a am njëriñ mënoo mhm. nekk ci dëkk boo xam ne yow da da lay may hôpital ngay faju may la tali yu baax may la école say doom di si jàng may la ah. lépp te maanaam mënoo am njëriñ ci dëkk bi loolu mënul nekk dëkk ci ay boutique dëkk ci ay kiosque yeewu di brosse wala di jàpp ci biir ci kaw trottoir loolu du yoon day jeex non waxuma non foofu ma c'est fi day jeex tàkk wallahi azim 2024 dañoo jëm ci Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne étranger nañ am carte de séjour sauf peut-être les Gambiens parce que Gambie Sénégal la bokk mais tous les étrangers muy naar muy tubaab muy africain da ngay am titre de séjour incha allah te di nga fay créer benn épargne nationale boo xam maanaam day wàññi considérablement maanaam dundinu nit ñi. d'accord waaw dafa am benn question bu ma bëgg ñu dugg laataa ñu dugg ci sa programme waxtaan ci yeneen mooy dans l'opposition sénégalaise aujourd'hui il a Abdourahmane Diouf il y a Pape Djibril Fall il y monsieur Tahirou Sarr il y a Ousmane Sonko Khalifa ak ñeneen ak ñeneen tey profil yi dafa bari loolu te wutee te décompte bi ñu mujj def on presque à plus de 36 à 37 candidats déjà yoo xam ne c'est déjà officiel lan nga yaakaar réellement que ni compte boobu yëpp bu ñu ko naree asencer pour jëm ci contribuable bu Sénégal organiser élection yi dina métti lool mais ci beneen côté lan nga yaakaar moom la ñu def de sorte que ñu mën a wàññi liste parce que tamit bu ñëpp naree bokk day nekk loo xam ne day bare lool. nan lay nekkee ci contribuable Sénégal alors que yow chaque candidat day day day cotiser 30 millions mais organisation élection ne la chaque candidat. Mhm. day cotiser caution. waaw kon du nekk ci contribuable Sénégal. vote vote bi tam dina métti de. nan lay méttee. non mais 36 feuilles wala 36 candidats. cest à xam nga lépp. bu fekkee yoon may na la nga mën a choisir élection la. waay su ñu tegoon 100 candidats ah xam am solo yow ki nga bëgg voter jël ko dem dugal ko. méttiwul de nañu waxoon dëgg man dama ne Sénégal képp ku bëgg nekk président te nga rempli maanaam les chartes mën nga bokk muy ku nekk. kon yow même bu ñu am sans sax dérangé wul la. dama ne na ñëpp bokk ku bëgg nekk président na ñëpp bokk façon d'ici que élection yi di jot dinañ xam ñi nga xam dañ doon bokk bokklu at ñi doon at ñi bokk ñi bëgg bokk dëgg am na ñoo xam dañuy bokk bokklu rek te bokkuñu loolu kese la. d'accord ma gis la ci sa programme nga teg ci ay points yu bari lool te wuute Euh, sama xel nag extrêmement mënu mënu ma ñàkk yóbbu ci ce que l'on appelle affaire immigration foofu laay njëkkee yow parce que coow foofu la démarré mais may gis ngay dugal ay code yoo xamante ni monsieur Sarr man sama jëm bopp dafa maa xaw a jaaxal imposer ay carte de séjour dellu si waat également nga ni euh, la majeure partie collaboration yi ñu am dafa am ci ay ponk yoo xamante ni ci ngeen koy teg dem nga sax également ba dugalal ni ci euh, ce que l'on benn maanaam prioriser nationalisation bu Sénégal aussi nga dem wékku ko nga ne il faut que ñu teg ko ci ce qu'on appelle secteur d'emploi boo xamante nii mu nekk bu formel ak bu informel bi yëpp dañuy prioriser ñi nga xam ñoo nekk sénégalais ci beneen côté également nga dolli si waat que ni taxe titre séjour également aussi dafa nekk loo xam ne priorité la ci yow mais tey ji réew mi ñi nekk nii ak ni muy doxee nii est-ce que yaakaaroo que ni yooyu bu ñu ko fas yéene indi lu bare bari mën na ko gàll a guuseel ci suñu ay question relation internationale non yow soo dem France da ngay ñaan da ngay dafa yàq dara ci relation ko Mauritanie bi da ngay da ngay fay titre de séjour Bénin Gabon dangay ngay fay titre de séjour lan la yàq ci relation yi ambassadeur u Bénin ak Gabon ak Mauritanie ñu ngi Sénégal fi am fi jàmm kenn sonalu leen est-ce que dégg mhm. gis nga dëkk bu tekki ci àdduna ah te amul politique migratoire amul je dis bien dëkk bu tekki maintenant nag ñun dañoo bëgg de suñu dëkk bi ubbi ko ubbi boo xamante ne kenn du si ñàkk du dul doomu sénégalais yi dama la jox exemple ndaw bu njëkkoon soo demoon avenue Lamine géey bi. waaw libanais bi day ñëw wàccee conteneur teg trente mille woo ay sénégalais feneen ku nekk cinq mille. Mhm. yaa may dégg. waaw gars yi wàccee conteneur bi. léegi day wàccee conteneur teg dix mille guinéen ñëw ku nekk mille francs conteneur bi wàcc kan moo perte ku perte. est-ce que su yàggee du ñu wax ne il est un raciste. je l'assume. Euh, moom. je l'assume lu ñeneen ñi mu jël ko écarté. comprendre de je l'assume. j'assume être le raciste qu'on mais instant mondialisation lañ toll si monsieur. mondialisation lan mooy mondialisation. non mais que Sénégalais il faut nga accepter ñeneen ñi mën a ñëw fii di fi daan seen doole ñeneen ñi mën a dem fële di fa daan seen doole. mais moo tax mën na nekk benn la immigration maanaam étranger lu baax si dëkk la mais dama ne day am njëriñ Sénégalais yi nekk bitim réew pour yow lan fa nekkee dañ fa nekk gratuitement nekkuñ fa gratuitement. waaw dañuy fay ay séjour dañuy fay ay taxes te dañuy cotiser même nu mu tuddati euh, retraite te retraite bu ñuy cotiser pour le moment nii. Mhm. ay paaw tubaab ay mère tubaab ñoo koy jëfandikoo. d'accord yaa may dégg. Mhm. léegi léegi yéen da ngeen bëgg Sénégal di continuer di jël ay étranger di leen bàyyi gratuitement ñiy ñëw di yàq maanaam lépp liy valeur Sénégal parce que xam nga étranger. day yàq valeur ci Sénégal xamul tax. Mm. bu njëkkoon Europe. Mhm. ñun ñun ñun suñu papa yi ak suñu maam yi ñoo fa nekkoon doon mm. liggéey ci mbalit yi doon liggéey maanaam ci raxas mbedd yeeg yooyu noonu ñu leen di fay xaalis parce que tubaab bi dañ koo xeeboon mais ba tubaab bi demee ba xam ne ñii suñu continuer mm-hmm. maanaam suñu jeunesse dañoo nar a paresse dañu nar a tayal te immigré dañu fi nar a gën a ëpp di gën a arraché di tuur seen dëkk lan lañ def dañoo jël manaam liggéey yooyu yëpp def ko en mode formation. Mhm. valoriser ko. di leen sonal di di di leen solal tenue pour que ñi ñi am cër léegi soo demee Europe mais mbalit yi tubaab bi kese ñoo koy kii ñoo koy ñoo koy liggéey léegi da bëgg yéen maanaam Sénégal. Mhm. Sénégalais bi su waree fayee ko fenn cent mille. su guinéen bi ñëwee wala libérien bi ñëwee wala sierra bi ñëwee wala keneen ñëw maanaam moom fay leen ma cinquante mille léegi ñu dàq sénégalais bi lool ngeen bëgg man du ma ko def man sénégal su may jël déglu ma su même su ma gaaree sama oto jël taxi sama oto su ko sénégalais dawalul du ma si dugg d'accord man sama xaalis bu may dépense sénégal ci famille sénégal la jëm si njabootu sénégal la jëm maintenant nag bu dee ne loolu mooy racisme racisme assumé. lan ngay woowee recensement ak identification étranger recensement identification mooy incha allah suñu toll suñu yàlla ba ñu toll ci dinañ woo étranger yi si seen làkk bu nekk ci rajo yi ak ci télé yi pour ñu ñëw bindu ku si bindu dinañ la jox quitus jox la titre de séjour te di nga xam looy fay soo ko mënee fay nga fay ko soo ko mënul fay jàppal ne tu es un sans papier si biir Sénégal te incha allah di nga dellu si sa territoire loolu mooy recensement bi et c'est kon li ñu fi gis sa dernier temps là loolu ànd nga ci gaare ay bus ñenn ñi ñu dugg yóbbu wala coow am ñu jël ay nit di rapatrier loolu mauvaise politique la balaa ngay jël nit di ko dàq da jox maanaam. yenn pouvoir yi mu toogee même Europe suñu la dàq ci papier dañuy jox maanaam benn mois wala benn trois mois boo xam ne di nga amaat droit redemander waat fii li fi am li ma expliqué xam mooy lan. Hmm. mooy dëkk bi. waaw étranger yi fi nekk yëpp. Hmm. dañu war a am këyit te këyit boobu noonu day sécuriser Sénégal benn te da leen di ñoom sécuriser soo demee ci morgue yi nii sénégalais day am néew ci morgue pour nga jot ci il faut nga fay xaalis. pendant ce temps morgue yi mi ngi fees dell at ay étrangers yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge at fu ñu bawoo dañ leen di jenti pendant quelque temps glacé leen après dem leen suul leen en l'eau du yoon te pourtant ñu dee fii ñëpp seen ambassades yi ñi ngi fi de carte consulaire sax amuñ ko pour ñu xam ne diw maanaam li mooy national nationalité pour ñu dem mën a aviser ambassadeur am amul d'accord et pourquoi permission de travail ak euh, pas d'accès euh, pas de gratuité au service public parce que du gën a restreindre parce que on est un pays pauvre et la priorité doit revenir principalement aux Sénégalais on un pays pauvre Sénégal tollul fu muy baaxee ci ay étrangers Sénégal xam nga fan la toll ci baax baax ci ay doomam baax ci koo xam dafa la jox pièce d'identité nga xam ne kii ndeyam ak baayam ay sénégalais lañ. mais lii la yëpp yow soo ko fas yéene def nga yaakaar ne di nga mën dina mën a yomb ci yow nga am ay étranger sawar pour ñëw investir. si biir bien day gën a te dañuy jàpp ne yaa ngi yaa ngi buntu xatal seen ay doom. non non non lan ngi foofu fees fa respecté ko ñi ngi fa fees ko respecté ko moo am Maroc moo am Tunisie moo am Égypte. Mhm. te sénégalais ñi ngi fa fees fa cest à il faut man dama tukki. Mhm. je très bien sénégalais lu ñuy dundee. d'accord de est-ce que dégg nga mhm. ñuy fayee ak lu ñuy daj xam naa ko. gambi bii rek sénégalais yi dañ sañu sañu fa circuler sans am kayitu alliance. Gambie bii nii te pourtant man dama inclure Gambie ci maanaam biir gratuité titre de séjour parce que dama jàpp ne Gambie bi Sénégal la bokk. d'accord dafa am Sénégalais yoo xam ne dañoo tënku ci benn kuréel ma gis nga dugal ko yow tamit muy réforme sur l'implantation des banques au niveau du Sénégal nit ñi ñu bare bare ñu ngi ci yuuxu ñeneen ñu ciy wax. yow nga jàpp ne dafa am impérativement dafa war am lu ñuy woowee euh, maanaam obligation de garantir des banques étrangères euh, ci ñi nga xamante ni daanaka dañuy ñëw pour financer ak tamit euh, pour bénéfice annuel bi nga xamante dinañ koy am crédit bi nga xamante ne dafay génn yooyu yëpp nga fas yéene ci indi benn changement mais beneen bi mooy ñu créer benn banque nationale bi ma dégg moom nga wax est-ce que su boobaa pour nga mën ko amal banque nationale boobulee da ngay fexe limiter yenn banques yi implanté wu bàyyi ko l'étranger wala da nga leen di supprimer wala réellement da mettre en faveur tout court banque nationale. banque dëkk bu normal am na naturellement une banque nationale. Mm-hmm. mais day fekk nga nangu ne lii du mbiru politique. lu vital la lu stratégique la. d'accord mooy exemple post xam nga poste sénégal yi bëri am nañ fa cër. est-ce que dégg. Mhm. poste suñ ko transformé woon en banque ah ba nga xam da ngay imposer Western lu luñ la mën a envoyé ci beneen dëkk day jaar post état da ci lekk. Mhm. RIA ak euh, lu mu mënti doon. Mhm. benn nga imposer tous les investisseurs je dis bien étrangers par exemple Auchan nga ne ko Auchan say employés yëpp. poste nga leen di fayee. d'accord de sorte que maanaam tous les qui travaillent à Auchan dañuy am maanaam compte bancaire poste. nga xool maanaam banques yi fi nekk même les banques qui sont là. Mhm. Euh, nu mu tuuti at yenn société privée yi. ñuy fayee maanaam par poste. pour maanaam waaw waaw. pour nga am benn mhm. gafaga yow état. benn ñaar non seulement am nga gafaga mais di nga mën yar sa waa askan. ci maanaam ñu am confiance si dëkk. Mhm. benn si dëkk bi. ci stabilité bi ak ci banque bi. mais loolu yëpp soo ko bàyyee. yow nga dem Auchan di fay sa doomu dëkk par Wave wala par Orange Money kan mooy perte Auchan pertul mhm. mais état Sénégal mooy perte. waaw dañu waxoon dëgg te yàlla tax léegi dëkk nan la mën a fonctionner sans banque boo xam ne moo ko moomoon boppam nga jóge ci. say mhm. banque étrangères. Mhm. ku si nekk day am ay milliards en bénéfice dama la jox exemple ndaw. lu mel ni CBAO bi. c' la plus grande banque du Sénégal moom la moom la sénégalais yi gën a wóolu ci banque Sénégal. famille chaque année minimalement dañu am 60 milliards de bénéfices. yoo xamante ne yow état amoo ci dara. et puis banque boo xam ne par exemple du lebal sa doomu dëkk du lebal borom entreprise muy mhm. petite et moyenne du lebal kenn. d'accord léegi yow état da nga war a am fulla ne ko yow eh sama dëkk ngay amee xaalis sama dëkk ngay ame plus de 60 milliards par année donc dama bëgg ci sa 60 milliards yi ñu xool nu ñu négocier 15 milliards ba 20 milliards nga koy aal sama petite et moyenne entreprise man état am rôle euh, garantir la ne xale yi dinañ la fay même suñ la fayul man dinaa jël ci sama gafaga fay la. d'accord mais dëkk noonu lay doxee mais lan moo am fii. Mhm. nit day ñëw investir déjà day ubbi benn société muy mhm. banque muy leneen jël koo xam du sénégalais sax def ko DRH bi di tànn ñu leen neex. jël ay ñàkk n'importe quoi su Sénégalais liggéey société ay stagiaire lañ fa dañuy gis Sénégalais boo xam day nekk stagiaire pendant 6 mois 7 mois ci benn dëkk ci benn ci benn société. Mhm. soo demee Orange wala Sonatel c'est pareil. de quoi. léegi après yow nga bëgg dëkk bi noonu avancé. d'accord bu dee loolu mooy racisme. incha allah dinaa ci wéy. mais l'éducation nationale ak euh, euh, point bi nga indi ci réforme justice mooy ma mooy xam naa ne yitteel na loolu sénégalais moo tax dañuy doore ci éducation bi doo ko jeexale par justice. mais éducation am na tam bu important. waaye non waaw boobu dinañ ci dellu si parce que dina am boo mu yokkal mais éducation bi également bëgg naa ñu taxaw ci bu baax maa ngi gis yaa ngi wax waxu ay réintégration ndongo daara réintégration li nga xamante ni. parce que parce que suñu éducation nationale. waay dafa créer une fracture sociale ci dëkk bi maanaam Sénégal fracture sociale bi fi am éducation nationale bi la njëkkee. maanaam dañoo jël une minorité intellectuelle ñi nga xam ne xëj na seen waajur yi ñoom ñoo jege peut-être état wala ñoo jege li ñu wax maanaam l'intellect di jàngal seen doom yi et tout jël yenn xale yi gëmloo leen ne maanaam il faut lutter contre l'exode rural toog leen seen dëkk ngeen bay toog leen seen dëkk ngeen sàmm et tout ba nga xam ne day mel ni ñoom suñu làkkul nasaraan bokkuñ ci askan bi te ñoom ñoo ëpp ci askan bi ñu dem ba di leen négliger ba di leen tere am këyit dañuy gis ñoo xam dañuy nekk maanaam ci ay zones yu reculées mënuñu am këyit mais ban taxawaay ci pluralité de ces écoles de formation là au Sénégal. déjà déjà déjà dañuy dooleel école de formation xamul tax parce que Sénégal dañu war a jàng benn affaire comme ni ko France defee ak yeneen dëkk yi. Ah. maanaam école dem am BFEM am bac wala am master wala ay kii loolu maanaam taxul nga tekki li gën a tax nit tekki te mu gaaw te mu noble mooy maanaam mu def formation. waaw parce que xale bi am 16 ans am 17 ans ñun loolu mooy suñu programme. Mm-hmm. dañ lay inciter. d'une part nga jàng bu fekkee sa xel neex na nga dem d'autre part maanaam nga nekk dans la formation parce que formation bi da lay permettre yow soo nekkee en 16 ans ba 20 ans en formation yow à partir de la vingtième année tu un salarié mais Europe loolu fa am Europe da gis benn xale boo xam ne il a 18 ans. il a un compte en banque il a une voiture il a un appartement pourquoi nekkul jàng yi sori de parce que dafa teel def formation teel a am liggéey teel a libre. su boobaa da mettre en référence li président Macky Sall defoon en 2014 bi muy ñëwee mooy ibbi école de formation yi de sorte que même nit yi bu ñu ñëwee dañuy dem inscrire foofu te l' état du Sénégal di ko fay gratuitement. Macky Sall defu ci dara lu baax. la preuve ñu ngi fi xale formation yi bari na. non di moo benn. am na école de jour am na école yoo xam ne journalisme am na étudiants yi ko intégré gratuitement. c'est l'état Sénégal qui paye dans le cadre ay question de gestion formation. Ah. Euh, ak euh, transport logistique yooyu ci la bokk ak yeneen ak yeneen. man de gisuma résultat bi. honnêtement ma lire ko je je je peux être d'accord. man maa ngi nii exemple laa ci. waaw kon baax na heureusement. kon alhamdulilah man exemple laa ci. waaw kon baax bu dee loolu. donc intégration yooyu noonu. mooy. waaw il faut surtout dëkk bi maanaam sélectionné yenn liggéey yi nga xam ne moom la xale yi gën a engagé. Mhm. parce que dafa am liggéey yoo xam ne il faut ñu xoolaat ko dooleel ñi nga xam ne ñoo fay mag yi. lu mel ni par exemple mécanique mécanicien yi bëri na dëkk bi. waaw menuisier yi bëri na si dëkk bi. cest à yooyu ay liggéey la yoo xamante ne il faut ñu dem ba si ñoom xool créer ay zone yoo xam ne dañ fay nekk dañ fay def benn école de formation de métier. parce que aussi mënuñu nekk ci dëkk bi rek jël xale yi beddi leen Euh, dañoo nduru ñu ñàkk dañoo nduru ay doom baadoola wala dañoo nduru moo xam dégguñu français ñooñu ñoo gën a nekk sénégalais que ñëpp ñu fexe nit ñi am këyit dëkk mënoo toog nga ne 17 millions de personnes lañu te 6 millions ñooy voté loolu mënul nekk c'est pas c'est pas possible alors le, le le le niveau universitaire parce que tey di nga nangu comme man que ni niveau d' apprentissage bi dafa xaw a wàññeeku. ah parce que loolu on a on, on a un de langue moom laay expliquer c'est-à-dire éducation nationale bi. il faut ak réintégration langue yi ma dégg si ngay wax. jàpp nga langue bi langue bi langue bi en priorité il faut ñu dugal suñu langue véhiculaire si suñu jàng doom yi mooy la wolof. wolof mooy làkkum bu yàlla jagle Sénégal mooy wërsëgu Sénégal wolof moom la ñëpp di làkk Sénégal même soo demee ba ci bureau yi que ça soit dans les conseils d' administration yu gën a haut ci Sénégal il mhm. parle wolof pourquoi parce que moom la ñëpp di làkk soo demee ba ci zone reculée yi que ça soit le sud que ça le Sénégal oriental wolof la ñuy làkk au nom de quoi ñu war a jël la langue française uniquement bëgg koo jàngee bëgg mu nekk maanaam suñu passage de tekki loolu mënul nekk làkkum nasaraan du yoonu tekki yoonu tekki Sénégal xam nga lan la wolof la mm. yàlla wan na ne ko ñu fi ëpp barke Sénégal ñu fi ëpp diine Sénégal wolof la làkk làkk na nag li am solo am solo mooy lan ñu def équilibrage des langues mm-hmm. olof bi du ñëw rey français du ñëw rey anglais du ñëw rey dara mhm. mais olof bi dañ ko war a jàngale suñu doom yi ba nga xam ne mathématique dañ koy expliquer ci olof ba nga xam ne maanaam yenn euh, nu mu siiti euh, matière scientifique dañ koy expliquer ci olof parce loolu moom moo ñu permettre ñu am ay scientifique am ay expert am ay analyste parce que tant ngi basé sur une langue étrangère ah on sera que des récitateurs d'accord maanaam on va juste lire parqueriser et réciter. Mhm. te loolu mënuñu ci wëy la preuve suñu éducation nationale lan la former forme que des mhm. ñu fi nekk ñëpp ba si Ismaïla Madior Fall bii di jéem jaay ne ay moom mooy tailleur de la République. il n'est qu'un simple théoricien parce que li muy wax yëpp maanaam sur base de lecture la. et d' mais nekkul sur une base de pratique. donc ça veut dire que il faut ñu xoolaat suñu identité nationale te loolu mi ngi commencé parce que la majeure partie bu ñu waxee ñu ne justice bu Sénégal dañ ko instrumentaliser tey ji au conseil magistrature bi dañ war a xoolaat nu ñu koy defee président de la république mooy buum di bummi ban programme nga yaakaar réellement que ni war nañ ko mën de sorte que su boobaa séparation des pouvoirs war na mën am lu ci bare bare également muy dox de sorte que justice bu Sénégal mën di topp wala di def nu ko neexee ba image démocratie mën a nekk loo xam ne. waaw loolu mooy toujours ce cet esprit mooy que la séparation des pouvoirs. c'est-à-dire que euh, président bu fi nekk waratul mën a fal ay juge xam nga président yamatul sax ci fal ay juge day dem ba day sax fal ay ci affaire yi noonu te loolu danger si dëkk bi il faut ñu am benn maanaam mode d'élection ci juge yi de sorte que voilà de sorte mhm. que on aura des juges yoo xam dañuy impartiaux impartiaux du moins maanaam du ñu far fenn dañuy ñëw àtte ci yoon àtte ci serment bi nga xam ne moo leen séq entre seen diine ñoom muy jullit wala catholique ak àtte ci serment boo xam maanaam moom la ñu séqal maanaam ci lu ñu sol mooy touche bi mhm. te loolu mais mënatuñu nekk ci dëkk boo xam da ngay euh, nekk en plein yow juge bi ñu changé la parce que li la état bëgg def loo koo def ñu jël la yóbbu la Tamba wala Ziguinchor maanaam pour punir la parce que da ngaa bañ man gis naa ko fi bëgg ay juges yoo xam ne dañu leen nommé. Mhm. état bi amul benn pouvoir si ñoom. le président warutul sax maanaam diriger conseil supérieur de la magistrature. Mhm. parce que président bi déjà dudul sax magistrat suñu waxante dëgg. tey kon yow boo nekk président doo présider wu conseil. xalaatuma ko dañuy organiser ay élection de juge juge yoo xam ne man sama yoon du ci nekk. d'accord voilà lenn kese laay séq ak ñoom mhm. maanaam su dëkk bi nekkee dans un état peut-être impérieux ñu mën a gisate mën a waxtaan et mais dans le dans un autre de jugement que ça soit des affaires politiques simples que ça soit des affaires politiques composées sama yoon newu ci ku ma mën a àndal ay ati at soo defee loo xam ne waroo ko def juge teg sew sa loxo sama yoon newu ci loolu mooy doxal dëkk nit da ngay nekk un dirigeant sacrificiel mhm. xam luy sacrificiel mhm. maanaam mooy ni nga yaree sa doom sa doom nga gis ko muy jooy wala nga gis ko wala di ko ñaf parce que dafa def dara neexul ci xol mais da nga xam ne lii maanaam pour mu baax la mais tam pour mu nekk suba exemple. d'accord yaa ngi wax euh, Sénégal dafay dugg ci benn aspect boo xam ne bu bees lay doon mooy exploitation pétrole ak gaz. mu nekk également benn aspect boo xamante ni bu am solo muy doon lan nga teg ci sa programme loo xamante ni tey jii di nga jàpp ne benn formation de plus lay war a mën a doon pour les sénégalais que fi ñu jëm noonu ci wàllum exploitation non seulement ñu mën ciy gis suñu bopp mais beneen côté également ñu mën a teg benn transparence boo xam ne système de gouvernance bi lu équilibré moom lay doon. waaw mooy créer benn ministère spécialement pour ça c'est-à-dire xam nga mbiru pétrole bi tant que Macky Sall jugu fi. du leer nopp Sénégalais yi parce que li ci am dafa grave en fait dama la jox exemple bu ndaw. waaw Macky Sall dem mu gëmloo ñu ne Mauritanie at senegal seen gaz dafa dende yaa ngi fàttaliku. Mhm. ñu loo ñu ne mais Sénégal moo ëpple yaa ngi fàttaliku. mais ci biir ëppale boobu noonu. Mhm. ñun Sénégal ñun. Mhm. amuñu benn caractère ak fulla boo xamante ne su ñun la war a ballee mais fu mu néewee lay bale mais n'empêche def nañ def nañu def nañu benn signature boo xamante ni dafa équilibré. ci li ñuy wax Sénégal moom li ñoom ñi moom la lay ci exploitation ba ñu posé Macky Sall la question Sénégal lan la am at lan la tontu. 50 50 50 50 lay ne kenn ku sa part non ñu ne ko 50 50 de quoi lan mooy 50 50 bi 10 pour cent mooy 50 50 pour cent mooy 50 50 lan mooy fi non cest à man man man sama xel du meuble damay réfléchir. man sama xel togguma ci di di di nongi nongi damay damay kii quoi je t'explique dama ne la. Mhm. dañ ko ne lan mooy 50 50 bi. mu ne 50 50 dem yoonam waxul 50 50 bi nañu wax lan mooy bu dee 50 pour cent mooy 50 ñu xam bu dee 40 pour cent bu dee kii et puis ñun waruñu am 50 50 Mauritanie parce que bu dee ñun ñoo gën a ëppale maanaam portion gazière. waaw que Mauritanie. waaw ña benn si ñun la war a bale parce que doomu Sénégal ak territoire Sénégal moo war a jël employé yooyu noonu ñaar waruñu tolloo. est-ce que da nga jàpp dafa may accord révélateur xam nga danger bi lu xam nga xam bi mooy lan waaw suba dina fi jógee mais daf ñu nar a bàyyil ay contentieux ak dëkku Mauritanie te loolu dafa garaaw li ma wax nii nag maanaam neex na wax tey pétrole yi non gaz bi surtout ci gaz bi oui parce que xam nga dëkk ay dëkk suñuy xeex. mais mais mais mais waxtaan ba monsieur Sarr boobu weesu nañ ko déjà président de la république ak waa Mauritanie am nañu déjà accord ba noppi. président bu fi war a ñëw toog su xoolee ne lii du yoon su ko neexee du ko changer wala modifier ko waaw moom mën nañu renégocier. waaw man su ma ñëwee toog xam ne lii du yoon dama koy renégocier parce que loolu du man mais lii yellool askan bi la askan bi mënuñu ëppale dara ba pare dem ñi leen koy xañ ñi leen koy xañ ba xañ leen sax ci liggéey yi parce que léegi Mauritanie moom ñoo gën a tuutale mais ñoom la ñuy ubbil maanaam foofu lay ballee doomu Mauritanie ñoo ci liggéey hmm. ñun suñu doom moom duñ ci liggéey ñun dañuy xaar rek xëj na maanaam portion yi te duñ ko sax gis day dugg directement trésor public mën nañu gëm la somme boo xam sax duggul faf xam nga gis nga nañu wax ne dëgg hmm. gis nga dëkk waaw mën nga ko gérer ci yenn yoo xam ne maanaam c'est des dossiers très secrets mais gis nga quant à les ressources du ay caaxaan affaire yi dafa war a dem dans la transparence mhm. askan bi xam parce que amul tax mhm. parce que fi ñu jëm ak pétrole gaz bi nii suñu suñu programme dañu war a dem comme dans les pays normaux laa wax de dañu nar a dem ba nga xam ne maanaam le sénégalais même chômeur qui ne travaille pas mhm. ah, war na mën a am benn compte en banque boo xam ne maanaam dañ ko fay tuur xaalis parce que si fii la juddoo fii la yaroo d'accord relation yi ñu am Mauritanie yaa ko cité mais même ci biir Sénégal dañu am problème parfois ci napp fii la ñuy yem ñeneen ñi fële la ñuy yem mais déroulement boobu noonu balaa ñu koy régler à l'étranger ma gis yow tamit nga wax ci ndax yàppoo ko ni am na benn liggéey bu mag a mag bu ñu war a def même ci suñu waaxu biir réew yi pour yenn xeex yi nga xam ne dañ koy dégg tey fii ak dëkk bële dëkk ah, li ma ci wax jëm ci wàllu napp bi non gis naa lan mooy lan ban solution laa si joxe voilà non naa la non gis la nga ne contrat de pêche également mu bokk ci li nga xam ne lu moom ngay xoolaat parce que xaalis bu faire des pêcheurs sénégalais les priorités dans nos eaux à l'aide aussi d'acquérir benn xam nga man man surtout géej mbay man sëtu Lebu lii géej di indi ci xaalis dara du ko indi et la preuve les premiers millionnaires du Sénégal c' étaient des pêcheurs mais dañoo jël géej gi saax saaxe ko jaaye ko ba ba nga xam ne maanaam Sénégal léegi géej gi mënatul sax produire ay millionnaires mais soo demee Médina bi nii. kër yi fa gën a contrat de pêche yi. voilà kër yi fa gën a baax yëpp gën fa ngand yëpp ay këru lébu la soo demee ville plateau ay këru lébu la des lébu pêcheurs man xam naa bu baax lu géej di produire ci xaalis. état Sénégal dafa ñëw nag tënk ko sur xam nga laan fan la ko teg. yéen pirogue yi seen bateau yi dafa ndaw. mu mun leen egg ci yenn maanaam affaire yi c'est-à-dire état bi jéemul sax ut ay bato de dragage yoo xam ne da koy équipé. Hmm. su koy sax loué peut-être yenn riche euh, nu mu tuddati. Euh, producteurs halieutiques yi ci Sénégal. nga xam ne mën waaw def lool de mais il a préféré dem signe ay contrat des milliards di ko lekk. te pêcheurs yi ko gis duñ ko def dara maanaam même soo demee sax maanaam ci nu mu tuddati ci euh, quai de pêche yi. doo sax gis ambulance bu fa taxaw. doo sax gis maanaam benn genre bateau de sauvetage boo xam ne au cas si quelqu'un se noie wala ku lab. mais yow tey rattrapage bi pour yow lan lay nekk. ci contrat rattrapage bi rattrapage bi mooy renégocier rek xam nga xam nga kay ma xamal la gis nga euh, nu euh, li am solo ba am solo xam mooy lan. Hmm. soo amee ressource naturelle da ngay fexe yow noo tënkee ba pare benn xam mooy sa géej riche na état am na moyen jënd ay bato de dragage yoo xam ne maanaam mën na fay ay chinois ay indonésiens ay tubaab yoo xam ne dañuy ñëw mm. pêcheel ko ñi soxla jën yi ah. ñoom ñu ñëw toog ci quai bi di xaar jën yi ñëw état am ñu ko fa mën a jaayal en même temps tam yeneen pêcheur tamit am seen wërsëg tam dem génn di jaay loolu yoon mais ah. mënoo toog jël géej gi limité ko naan ay chinois yi ñi ngi fee ñu ngi fi ñu ngi fi yow sa doomu dëkk waaye ay seen bateau dafa ndaw bateau suux na bateau bi non du loolu loolu c'est de l'irresponsabilité du yoon. d'accord dañuy récupérer suñu bien yëpp même sur le plan de l'agriculture c'est pareil gerte bi suñ ko bayee ba pare état bi lépp lay jënd c'est comme fait le roi du Maroc roi du Maroc day xool gars bay ba pare lépp lay jënd après c'est l'état qui vend. parce que yow am nga am nga gerte boo xam par exemple chinois dañ koy jënd si. Mhm. américain dañ koy jënd si mais yow léegi yow état mën nga jëndee gerte bi par exemple trois le kilo exemple quoi ci jaaykat bi. yow état su la neexee que il day ñëw conformé wu at yow sa bëgg-bëgg. d'accord et yow tout ça da lay rëcc non seulement da lay rëcc yow état. Mhm. day rëcc sa askan. d'accord même bu fekkee même bu fekkee ci côté santé mën nañu accepter boobu mu yaakaar naa di nga ko accepter que ne suñu plateau médical avancé am na ci. tey jii bari na tamit duñ ciy joytu ci wàllum cher ak dox bi nga xam ne tamit ñu baree bari secteur privé bi mu ngi koy dox comme clinique yeeg yooyu noonu mais tey jii lan nga jàpp moo war a nekk taxawaay bi ñu ci war a mën a àbb surtout aussi ci zone yi nga xam ne ñoo gën a reculer parce que xam nga santé bi santé bi dafa am benn dafa am am ay naxambaay ci am gis nga lu mel ni santé euh, loolu il faut que nga nekk ku am xol ku am solidarité waaw pour mën koo mën koo yombalal ñun lan lañ wax dañu ne chaque hôpital dañ koy gager de un milliard mhm. maanaam pour le social maanaam ñi nga xam ne amuñu moyen faju parce que faju droit la surtout dëkk buy bàkkoo ne am na pétrole am na gaz léegi instant bi nii avec les ressources naturelles l'état a la responsabilité et l'obligation muy faj doomu sénégalais yi même su fekkee amuñu xaalis c'est ça la vérité d'accord waaw maintenant nag toog fii rénover hôpital defar buntu hôpital te defaroo douche hôpital parce que da ngay xool hôpital yi da ngay dem buntu bi nice na mais da ngay dugg seet si patient mënul sax dem si toilette pour tuur ndox parce que ay hôpital man dugg naa fi ay hôpitaux yoo xamante ne maanaam mooy cage yooyu noonu borom chantier yi di di demee douche. Hmm. lañ fa teg cage boo xam ne c'est même pas un mètre carré pour yow loolu loolu yoon. mais dans les zones reculées aussi. il non dans les zones reculées. parce que foofu dans les zones dans les zones reculées xam nga en un premier temps lan moo am. mooy faire des moyens de transport yi nga xam maanaam day adéquat. pour que nit ñi di mën a am accès. aux hôpitaux et aux dispensaires te loolu mu ngi suñu programme aussi tamit loolu c'est déjà calé am nañ ci sax yoo xamante ne maanaam que ça soit des voitures que ça soit des ambulanciers jusqu'au moto tricycle maanaam yoo xam dañ koy customiser parce que man xam naa ñu nekk en Chine am na yoo xam mën nañ defar ay moto tricycle yoo xam maanaam mën na am benn jigéen biir boo xam mën na tëdd ci biir de façon très confortable ku muy àndal muy jëkkëram wala sëram wala yaayam nekk ci biir at kuy daw ci kanam de sorte que maanaam doo jurati doom ngay toog ci ay charrette wala ay mbaam xale bi di par de secousse en secousse loos bi di dem avant nga koy que loolu am waaw mais continuité mais tam correction correction parce que Macky Sall am na ay projet yu baax yu mu def lu mel ni par exemple BRT bi BRT bi projet bu baax la mais c'est salement fait non c'est salement fait xam nga lu salement fait BRT bi dañoo jël maanaam route nationale bi mu nekk une voie sur un pays boo xam ne quatre-vingt-dix pour cent des voitures c'est des voitures d'occasion ça veut dire que maanaam voiture benn oto su chauffé su chauffé wala mu am maanaam courant bu fay oto bi fay donc ça maanaam un kilomètre de d'embouteillage alors que alors que yow mënoo jàdd mënoon dévier parce que dañu defal ay genre mur yoo xam dafa yéeg mhm. mur yoo xam par exemple maanaam lu ci collé maanaam ay kër la da ngay gis ay buntu kër yoo xamante ne dafa collé automatiquement ak tali bi maanaam mhm. mooy xale yi fa dëkk ak nit yi fa dëkk ñoom mënuñu maanaam am mbégte si fu ñu dëkk te pourtant je suis sûr et certain que dans les plans t'as besoin de faire génie civil pour ça mhm. dans les plans xam nañ que ne am nañu budget boo xam dañu waroon dégager yenn kër yi pour a yaatu mais xaw ma nan la ñu mën a ñàkkee négociation ba kër yooyu des fa fu nawet bi nga ñëw on va voir le lot de dégâts qui va se faire. ci wàllum inondation yi. bah oui donc voilà alors que inondation dëkk boo xam ne ay géej la wër parce que dëkk su la géej wëree waroo mënoo inondé wax ci mooy da def dangay ngay da ngay liggéey de façon très sérieuse. ay milliards déjà. waaw no non parce que dañ jàpp ne liggéey contre l'inondation c'est investir des milliards sous terre loolu la politicien yi d'habitude di wax moo ma tax man du ma politicien je un réformateur donc mi ngi noonu maintenant waaw maanaam une créer kuréel boo xamante ne maanaam mhm. euh, nu mu tudd kilifa diine bu nekk dafay am ko ko fay toggal ah. muy kilifa diine jàng bi muy kilifa diine maanaam euh, sini diine islam ba ci kilifa diine ñi nga xam sax maanaam su leen neexee tam ñu ne gëmuñu que dëkk a demeeg suñu su ñu ñëwee di ko wax affaire loi de loi sur l'homosexualité et mu ne ay le Sénégal n'est pas prêt non le Sénégal ne doit même pas être prêt le Sénégal n'a pas à être prêt pour ça mais xam nga la may wax ji mhm. dafa bëgg jël toute la responsabilité yanu ko di tontul Sénégal alors que parfois président da ngay bàyyi askan bi ak seen i gémmiñ yi leen di waxal maanaam mooy kilifa diine yi ñu waxal leen seen cër d'accord voilà donc amoon euh, nañ waaw dinañ ko gën a yaatal prochainement incha allah incha allah prochainement mais waxtu bi ñu cërale woon jeex na amoon naa mbégte lool dalal la ci Seneweb waaw man maa am mbégte bi tamit di ñaan yàlla màggal kër gi rek yàlla def tam jàmm ci Sénégal yàlla delloo si Macky Sall ci xel bu neex. xel bi mu amoon 2012 ba muy falu at mbégte boobu noonu mu am ko ci njeexital bi mu bàyyi candidat yëpp bokk ci élection bi. d'accord wax dëgg yàlla mu bàyyi ñëpp bokk. Mhm. moom voilà jarul mu am lu mu ciy tiit wala lu mu ci ragal incha allah parce que dëkk bi suñu dëkk la te moom dafa war a continuer dëkk Sénégal dafa war a continuer nekk Sénégal ay njabootam dañu war a tam continuer tam nekk Sénégal hmm. donc bu mu ko yàq incha allah incha allah jërëjëf mu nekkoon monsieur Tahirou Sarr moom lañ doon dalal ci li nga xam ne moo di émission benn entretien spécial bi ñu doon amal jaajëfal ko bu baax a baax ci disponibilité bi jaajëfal Babacar Ndiaye mi nga xamante moom moo nekkoon ci wàllum xarala gi jaajëfal Bass ak Modou Diop ñoom ñu jàppoon ci mbir yëpp ak Mouhamed Diallo ci wàllum coordination bi jaajëfal leen jox la dig daje ba suba incha allah jaa ngeen jëf